leen wax itam marhaban wa ahlan ci teewaay bi nga xam ne moom ngeen teew si di ñaan yàlla subhanahu wa taala bi nga xam ne moo am pay eh, bépp jéego boo xam ne jóggi ngeen ko jëm si ci place bi yàlla na leen ko yàlla subhanahu wa taala defal yoon di leen ndokkeli ci gan bu mag bi nga xam ne moo neex suñu kanam muy weeru koor di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekk ko ak jàmm te lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul te fay ñu ci pay bi nga xam ne moom lay fay jaamam yu baax comme ni ñu leen ko waxe woon euh, gan bi nga xam ne moom lañ doon euh, teertu yàlla dogal na ci mbaaxam agsi na defal ñu waxtaan bi nga xam ne moom la sàkk woon ci moom muy Cheikh Mouhamad Ahmad Lo euh, ñu ngi dokkeel ñëpp am na mbokk yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ba Dakar am na ñu bàyyi ko ba Mbour ak ñi nga xam ne sax ñoo bàyyi ko ci dëkk bi suñu pàpp yéeg suñu yaay yu baax yi fi ne suñu mag ñeeg suñu rakk yi suñu jigéen ñi ñu ngi sant ñëpp alhamdulilah bu ko defee incha allah ñun ñëpp ñu bokk déglu euh, liñ ci jublu nag mooy ab julit bu teewee jotaay boo xam ne jotaayu lislaam la nay bàyyi xel ne moom def ci war a dégg loo xam ne daf koy jëriñoo kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen di bàyyi loo xel di ko bàyyiloo suñu bopp incha allah kon mawdoo bi mooy rek euh, di wane ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yoon wi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yaroon ay sahabaam te leen di tuddee salaf ak ñi nga xam ne ñoo jaar ci seen yoon ba tey ji ñu nekk kon loolu mooy tomb bi nga xam ne euh, mbokk mi incha allah taala moom lay fas yéene waxtaane ak ñun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 wa sharra al-umuuri muhdasaatuha wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar wa ba'du fa haadihi kalimatun unwaan xutuutun ariidatun xawla al-manhaji as-salafi mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi sant suñu boroom tabaraka wa taala ci dajale gim ñu dajale fii di ñaan jataay bi bokk ci jataay yiw jéego yiñ fi seqi jëm si fii ci mboolem mbokk yi moo xam ni ko mbokk mi waxee ñu jóge Ndakaaru ak ñu jóge Mbuur ak ñu jóge feneen ak ñu jóge seen kër lépp borom bi tabaraka wa taala def ko jéego yiw far ci ay bàkkaar yëkkati ci ay daraja jataay beet bañ bokk ci waxtu yu sànku yi bokk ci yi nga xam ne dees ci jëlee ay tuyaaba ëllëg ah, waxtaan wi comme ni ko mbokk mi di waxe li ko tax a jóg moo di fàttalente ah, li nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moo taxoon mu ñu bind ñu fàttalente itam li nga xam ne mooy suñu waru gar ci digganteeg ndawam lim yebaloon mu di yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu di diine ci moom lañ ko war a jëlee kon kooku ki ko topp faw mu am lu ko war waxtaan wi kon ci ay kàddu rekk la yu jëm ci jéem a leeral yonent boobu sallallahu alayhi wa alihi wa ak i saxaabaam ci lan lañ nekkoon ñi ñëw gannaaw bi it te bëgg a jaar ci njub lan moo war moo tax waxtaan wi ci ñaari xaaj la jëm benn bi ñi ngi ko tuddee masailu wa xaqaiq yaqtadiha al iltisaamu bil manhaj salafi mbir yoo xam ne ki xas askanoo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te jullit bu nekk da war a askanoo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbir yoo xam ne ki askanoo ci sunna yooyu daf lay war kooku mooy tomb bu njëkk bi tomb ñaareel bi qawaidu ilmiyatun fi bayaani hada al manhaj ay tënk yu gàtt yoo xam ne dañ ci tënk xal xallu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak i saxaabaam mooy lan ba ki ci jaar mën a bàyyi loolu xel bu ñu waxee nag al manhaju salafi manhaj ci arab li muy firi mooy aw yoon wu yaatu te leer kon loolu moo diw xal liñ ci jublu moo di yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaaroon ak i saxaabaam kon du yoon wu yaatu wu ne rek lañ jublu waaye yoon wu yaatu wu leer wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi jaaroon moom ak ay saxaabaam ak ñi leen topp seen gannaaw suñ xamee loolu kon xaaj bu njëkk bi xam ngeen ne képp doomu aadama joo xam ne jekki na jekki ne nangam am na nit ñi ba lañ koo gëmee ci moom faaw mu joxe firnde yoo xam ne ca lañuy sukkandiku ngir xam ne xabaaram bi wér na wala déet su benn waay jekki woon jekki rek agsi koo xam ne xamuñu ko xamuñu fu kóoluteem toll xamuñu fu goo xam dëgg toll mu ñëw nu rek ne nu gis naa fii de ci gannaaw lu fi xew loo xam ne nangam ak nangam la lu waay yàkkamti yàkkamti bala ngaa gëm loolu war ngaa am firnde firnde jooju mooy laajaat ko keneen wala ñu xool ko moom mi ne gis na loolu ba xam ndax lool am na jeexit ci moom wala nu jógal suñ bopp xool ba xam li wax dëgg la am déet liñ mooy ku joxe xabaar ku nekk aajowoo nga firnde juy wane ne sa xabaar bi dëgg la loolu moo tax jullit bi xas yëgle ne moom jullit la yëgle ne dafa nekk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ñu mën a gëm sa wax jooji nga wax laaj na firnde juy wane ne ci nga nekk nan la ñuy xamee ne wax nga dëgg jàpp naa ne amul firnde ju gën a wér ju gën a wér xool waajooju nga xam ne moom daf ne ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nekk su fekkee ne pas-pasam ak jaamu yàllaam ak jikkoom lépp daf koy tànqe ci li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon ak ci saxaabaam kooku li mu wax dëgg la su fekkee nag dafa wax rek ne moom jullit la moom ci sunna la nekk waaye bu ñu xoolee pas-pasam gis ci lu juuyoo ak pas-pasu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ak ci saxaabaam buñ xoolee jaamu yàllaam gis mu wuteeg jaamu yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam nga xool jikkoom ak jëflanteeg doomu aadama yi gis ne jikkoom dafay wuute ak jëfinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam kon kooku li mu waxoon da koo wax ci làmmiñam waaye indiwul firnde yoo xam ne ci lañuy mën a sukkandiku ba xam ne wax na dëgg kon loolu moo tax xaaj bu jëkk bi ma jëmale ko ci yi nga xam ne daf lay waa yow mi xas ne ab jullit la ah rax ca dolli nga ne ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga nekk yooyu la jiitu ci lu ci jëkk moo di al-i'tisaamu bil kitaabi wa sunna jàpp ci alquran ak sunna mooy li la jëkk war yow firnde yu bari la am ci alquranul karim ak ci sunna borom bi tabaraka wa taala moo wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa wala tafarraqu jàpp leen ci buumug yàlla gu dëgër gi te bu leen tàqalikoo buumug yàlla gi mboolem ñi firi alquran te seen firi wér dañ koy firee alquran ak sunna loolu mooy buum gi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ko yoor nit ñi ngir ñu mën cee jàpp ba mucc borom bi bi wax ne wa ann hada siraati mustaqiman fattabicuuh wala tattabicu subula fatafaraqa bikum an sabilih lii de mooy sama yoon wu jub wi loolu mooy lan mooy alquran ak sunna mu ne kon topp leen ko waaye bu leen topp ñal yi ñal mooy yoon yu ndaw ndawaan su ngeen ko toppeekat dana leen tàqale dana leen tàqale yéen ci seen diggante waaye dana dox seen diggante itam ngeen mën a tey xam yoon wu jub woowu fa tafarraqa bikum an sabilihi daf leen di tàqale yéen ci seen bopp du ngeen mën a bennoo ñaareel bi dana lëndëmal seen i bët ba duutu leen gis siraatul mustaqim mu di yoon bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xàlloon moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam bi muy jàngal saxaaba yi e, aaya boobu dafa rëdd wenn rëdd wu jub ne leen haada siraatullahi mustaqiman lii mooy yoonu yàlla wu jub wi teg ci nag ne yoon wi dafa am ay ñal ay yoon yu ndaw ndawaan yoo xam ne daf cee soqi ko jëm feneen fu dul fi yàlla bëgg yoon yooyu mu ne wenn wu ci ne am na seytaane su nekk ci bopp ba di ca woote mu ne nag kon jaar leen ci yoon wu jub yi waaye bu leen jaar ci ñàll yi wa anna hada siraati mustaqiman fattabiuhu topp leen ko wala tattabiu subula bu leen topp ñàll yi fa tafarraqa bikum an sabilihi mu di leen tàqale ba du ngeen mën a xamati yoonam mu jub kon kooku ci firnde yi ware ne jullit bi mënta bañ a jafandu ci alquran ak la ngir mu mën a jub ngir mu mën a baax waxaat moom borom bi tabaraka wa taala di wax yonentam ne ko fastamsik billadi uuxiya ilayk wa innaka ala siratin mustaqim fastamsik day digal yonentam mu ne ko jafandul billadi uxiya ilayka ci li ñu la waxyu loolu mooy alquran al karim yow yaa ngi jaar ci yoon wu jub wi yonente bi sallallahu alayhi wa moom la boroomam di waxal foofu ne ko yow yaa ngi jaar ci yoon wu jub wi yoon wu jub wi mooy lan mooy li ko yàlla waxyu kon jafandul ci loolu jàppal ci loolu bu dëgër kon euh, loolu ci mbaaxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soob gum soob sunu borom tabaraka wa taala mu tànn ko ci la ko jëlee wan ko li nga xam ne mooy siraatul mustaqim may ko tawfiqi jaar ci siraatul mustaqim waaye nag digal gi pour mu jàpp ci moo di na dëgër na dëgër na jàpp gi wér na jàpp gi leer bu mu ànd ak deng déng kon nag képp ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay yëg ne ndigal loolu yemut ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wante dañ ko koo digal digal ko mboolem aw xeetam borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne wala takunu min almushrikin min alladina faraqu diinahum wa kanu shiyan kullu xisbin bima ladayhim farixuun wala takunu min almushrikin yàlla nee na bu leen bokk mukk ci ñiy bokkaale ñooñu mooy ñan yow sunu borom mu ne min alladina faraqu diinahum wa kanu shiyan nee na ñooñu mooy ñi tàqale seeni diine def ay kuréel seen diine ay kuréel mu teg ca ne kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun benn kuréel bu nekk bu nekk lam nekk loola rek lay bége la mu nekk loola rek lay bége loolu jamono yu seytaane jekkoo jullit yi ba tàqale leen bañ def ay kuréel loolu lay jur kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun li muy fiire mooy kuréel bi nga nekk yow jàpp nga ne rëddu lislaam foofa la yam su ab noon dikkoon di màbb lislaam ca wet ga ca des ca beneen kuréel boo ca kontaanut itam doo jóg sax taxaw dimbali sa mbokki jullit da nga ciy bég ndax sa kuréel yow kenn laalu ko jàpp nga ne comme que ñu sa kuréel ñu lislaam loolu musiba la jamono yu amee tàqaloog jullit yi dikk na jullit yi jamono ñu tàqalikoo néew doole am na saa bu néew doole amee seen noon jekku leen kon ngir tabaxub jullit yi dëgër dëgër ba seen noon ragal leen faw ñu dellu ci alquranul karim jàngaat ko njàngin wu teey fexe ba ndaw ñiy jóg ñu tabax leen tabaxinu alquran ak sunna ci biir loolu ci lañuy dëgëre mën a taxaw ci kanam bépp noonu boo xam ne euh, dana leen dana leen jublu si la koy waral mooy bennoo ga ñuy mën a am jamono yoo xam ne bennoo am na te tegu ci kaw dëgg xeet wi dooleem dellusiwaat waaye lépp lu koy tàqale lu mu mën a doon xamal ne loolu ci neen ci nooni xeet wi ci la bokk moo tax jëmmi bokkaale mooy la ci jiitu ñaareel ba tàqalikoo ñetteel ba mooy kenn ku nekk da ngay dem ba sa rëddu kër rek nga ne fii la lislaam yam su ko defee néew doole dikk na jekk noonu yi dikk na borom bi tabaraka wa taala mi ngi waxaat ci alquran wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim borom bi tabaraka wa taala ki leen bind ak yonent bi mu yabal ci yéen ñooñu suñ xasee dogal amal mbir suñ xasee santaane yàlla santaane na ab yonentam santaane na alquran nee na jullit bi amatut lu muy tànn foofu foofu moom tànn lu la neex sañ a toog li nga sañ kay mooy lii la yàlla bëgg loolu rek nga sañ a topp lii la yonent bi bëgg loolu rek nga sañ topp kon loolu mooy jafandu ci alquran ak sunna te bàyyi lépp lu dul loolu borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax wax joo xam ne sax dafa ànd ak géñ mu ne fala wa rabbika laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajiduu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima borom bi tabaraka wa taala dafa géñ ne day yow yonent bi nii doomu aadama yi duñ mën a gëm seen ngëm du mën a baax lu dul lépp loo xam ne xew na seen diggante dañuy ñëw àtte woo ko ci yow dañuy ñëw ci yow nga àtteel leen ko te soo ko attee ba noppi seen xol da cay sedd duñ ci amati benn sikki sàkk wala benn naqar kon lépp loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indil nanu ko kooku atteem la moo xam ci alquran la ne wala ci sunna la waaye waruñu cee amati lu ñuy tànn wala mu doon atte boo xam ne da nga naan lii dama koy def rek ngir saña bañ sañuma koo bañ waaye fekk yaa ngi ci am naqaru xol da nga ci war a ànd ak neexaayu xol da nga ci war a ànd ak mbégte di ko topp yëg ne lii lu baax ci yow la Euh, lu xéewal la ci yow àdduna ak àllaaxira noonu nga ko war a yëge lu dul loolu nag ngëm nekku fa lu lool loolu ngëm nekku fa moo tax fa la wa rabbika laa yuminuun la tàmbalee borom bi tabaraka wa taala mi ngi ñuy wax ba fi cheyin fa ila allahi wa rasul in kuntum tuminuuna billahi wal yawmi al axiri dalika xayrun wa axsanu tawila mu ne jamono yoo xamee ne juuyoo dikkee na leen yéen jullit yi dem ngeen ba mu yàgg ak jooyoo am ci seen diggante delloo leen ko ci yàlla akub yonentam mu àtte leen dellu leen ci yàlla akub yonentam mu àtte leen su fekkee ne gëm ngeen yàlla boroom xam-xam bu mag muy ata bi muy firi aaya boobu daf ne delloo ko ci yàlla mooy nga delloo ko ci alquran delloo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga delloo ko ci sunna kon jullit yi jamono yoo xam ne jooyoo ak ŋaayoo ak xëccoo dox na seen diggante ngir loolu man fee jóg dellu ci ñaar yooyu doo nga ko fi man a jële weneen lay wu ñu sukkandiku amul loolu moo tax jullit yi war nañu bàyyiwaat seen xel ci jii ma dellu ci alquran ak sunna te bañ a nax suñ bopp jamono yoo xamee ne jàpp nga ne am na leneen looy sukkandiku loo xam ne moo war a àtte nit ñi lu bokkul alquran ak sunna moo xam lun bind la ngir d'accord ci teg ko fële wala mu doon loo xam ne jëmmi doomu aadama la joo xam ne bëgg nga ko fonk nga ko tax na nga defee ni kii moo war a àtte adduna ak ci biiram jamono yu loolu amee lay tàqale xeet waa ngi a ñëw te juuyoo gi du fi jóg ndax kat su fekkee ne danoo juuyoo kenn ku nekk ne man sama waay laa topp lu mu wax rek mooy wax ja lu mu waxul du wax ja ah nga bëgg nag ñi àttewu si ci sa waay keneen ka ca des nga ci ruq ba ca des bëgg ñu àttewu ji ci waayam moom itam te nag bul ko xeebal waayam saa boo ko xeebalee sa waay rek mu xeebal la mu xeebal la sa waay yow itam coow la gën a yokku rek kii ne wax na ma li kii ne wax na ma lii ñuy juyoo kuréel yi kenn ku nekk di wax ci sa kaw moroom loolu lu ko fi jële munta am lenn lu ko fi jële lu dul nu dellu ca fa yëf ya tàmbalee woon ba coow la xewagut ak kuréel yi dañuy wax ne su fekkee ne lislaam dafa mel ne ba muy ball dafa doon am ndox moo xam ne dafa bal di walangaan ñaare ndox bu dee bal di walangaan suuf sum romb su nekk day ndox ma day nuru suuf soosa su rombee suuf su xonq ndox mu xonq nga fay gis su rombee su ñuul noonu su rombee suuf su am xorom ndox ma day sa xorom nekk noonu ñi ne lislaam tasaaroo gi dafa mel ne bërëb bu nekk ba fa lislaam àggee dafa am couleur bu mu fa fekk couleur yooyee jaxasoo ca aada ya ak cosaan ya su ko defee ndox moomu nag kenn ku ne da ngay tànq sab kaas yor ne ndox mi nii rek la war a mel ndox mu melul nii moomu du ndox mu baax ma ah kam toll fa moom ndox ma xonq moom it mu tànk yëkkati ne nii la war a mel kam àggu fi moom fekk mu saf xorom mu yëkkati ne nii la war a mel coow li jëm kaw ñii ne ndox mi daa war a ñuul ñii ne daa war a xonq ñii ne dafa war a saf xorom ñii ne warta saf xorom coow li day daal di bari te menn ndox mee kon suñ bëggee xam ndox moomu nu mu mel dëgg dëgg dëgg te bëgg coow li dakk dañuy waaxu ba fa muy sottee fa muy balle nga xam ne jaaragul ci suuf su xonq jaaragul ci su ñuul awagul ci suuf su am xorom nga dégg sab kaas fa muy xellee boo yëkkatee ne ndox mi nii la mel su boobaa wax nga dëgg loolu mooy lan mooy coow li bari na juuyoo bi bari na ci biir jullit yi waaye buñ fàttee ne la boole woon jullit yi jëkk yi ñu doon benn loola ba tey mi ngi fi loolu mooy lan mooy kitaabullahi téereb sunu borom tabaraka wa taala ak sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa su ku nekk defee ne lislaam ni dong la war a mel ndax ci kuréel boobu ci nga judd ci nga yaru ci nga soqi ko bi jaaw nga defe ne noonu rek la war a mel keneen defee ne beneen ni la war a mel lislaam mënta doon ñaari lislaam wala ñett lislaam benn lislaam la mooy bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngew kon yow bi bëgg xam lislaam ju wér ji dellul ci al alquran ak sunna nga xool yonente bi lan la jàngale woon ñi mu jàngaloon lan lañ doon def yoo defee lu mel ne lañ doon def ah naa ne doo am gàcce ci sa kanam boroom bala ne yow diw lu tax nga doon def nangam ci sa jaamu yàlla wala lu taxoon nga fas nangam nga ne ah lii de maa ko jàng ci alxuraan muy sa téere lii itam yonent bi nga yebaloon moo ko fi jàngale ma jël ko di ko def ndax kii dana am yaraange su amee yaraange defe naa kenn du mucc kooku su amee yaraange kenn du mucc waaye nag keneen koo xam ne dañ laa yee nga jóge ci sa bàmmeel ñu la waaw yow xar nga fuufa yéeg yëf yëfaan jëfandikoo te lislaam xamu ko nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna foo ko jëlee nga ne ah man de damaa jóg rek fekk mag ña nekkoon ca béréb ba ma nekkoon la ma fekk ñu nekk ci ma daal di koy jël def ko muy sama lislaam ma ne ko ah dama laa joxul woon xel moo xam ne mën ngaa jàngi ba xam ne ah amoon naam xel de waaye nag damaa jublu woon rek ci liggéeyal njaboot geek yu mel noonu moo ma gàllankoor bu mënuma xam sama diine su boobaa defe naa ne kii aw layam wayef na toy ci kanam boromam ndax borom bi tabaraka wa bi mu yebal yonent ngir nit ñi bañ ame lay a tax rusulan mubashirina wa mundirina li an laa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun baada rusul dafa yebal yonente yi ngir ngir ne doomu aadama yi duñu amul lay fa seen kanam borom képp ku juyoog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyaam nga dikk fi sa kanam borom naan ko lii ci diw laa ko jële wala ci diw mu juyoo ak sunna kooku amutu lay loolu lu mat a bàyyi xel la fii ci dund gii balañ fay jóge kon tomb bu njëkk boobu nga xam ne moo la jëkk war yow mi askanoo ci lislaam askanoo ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa te jullit bu nekk day askanoo ci sunna kon li la jëkk a war mooy jàppal ci alquran ak sunna ñaareelu tomb bi la waral moo di luzumul jamaa taqool taqool ak mbooloom jullit ñi jub borom bi tabaraka wa taala dafa digle jullit yi ñu bennoo dafa digal jullit yi ñu jàpp ci alquran ak sunna ndax ñu bennoo bañ a tàqalikoo buñ nee aljamaa nag ci xadis yi rot yépp saxaaba yi niñ ko déggee ñoom du caagi di muy firi rek mbooloo mu bari waaye muy firi mbooloo mi dëppoo ak mbooloom yonente ba sallallahu alayhi wa sallam moo tax abdullah ibnu mas'ud day wax ne aljamaatu maa waafaqa alxaqa walaw kunta waxdak li ñuy tudde aljamaa ci sunna moo di la dëppoo ak dëgg la dëppoo ak alxuraan ak sunna donte yow dong fa nga nekk yow dong yaa mel noonu it su boobaa yaay jamaa kon ña noon noonu lañu war a taqool ñooy boroom xam-xam ya moo tax al imaamul buxaari rahimahullahu taala ci e, téeréem bu màgg boobu di saxiixul buxaari dafa am benn bunt mu ne baabun wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata wa hum ahlul ilmi wa hum ahlul ilmi aaya boobu di wax ne def nañ leen ngeen nekk xeet wu digg doomu xeet wu digg doomu mu ne ñooñe ñooy boroom xam-xam ya moom imaamul Buxaari ci ak déggam mu ne ñooñu ñooy boroom xam-xam yi ci xeet wu nekk lu tax mu ne boroom xam yi ñooy mën a jàpp ci alxuraan ak sunna ñu dul ñoom nag ñu dul ko jàpp ci alxuraan ak sunna nee donte askane nañ ko ci xam-xamit nee na googa askane askane misaal la waaye du askane dëgg-dëgg xam nga ne misaal ak dëgg-dëgg bokkut mu ne lu ko waral moo di boroom xam-xam su fitna ñëwee boo xam ne dafa nar a tàqalew xeet nar koo néewal doole nee na boroom xam-xam yi jëkk a turwe loolu moo koy jëkk yëg mooy jëkk won nit ñi itam bunt yoo xam ne suñ ci jaaree mucc ci fitna moo leen di jëkk woon bunt yoo xam ne suñ si jaaree dal di mucc ci fitna kon borom bi tabaraka wa ngir nit ñi mën a bennoo ngir nit ñi mën a nekk benn faww day am lu leen di bennale kon ngir ñu mën a am mbooloo mu wér moo xam ne tabaxu na tabaxu bu dër am doole mën a jariñ seen bopp mën a jariñ seenu xeet mën a jariñ àdduna day am lu leen di bennale lu leen di boole loolu comme ni ñu ko waxee léegi ci tomb bu njëkk bi moo di alxuraan ak sunna moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy wax yonente bi daf ne wa allafa bayna qulubihim xam nga ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy gàddaay di ñëw madina euh, ñam fa fekkoon mu di al aws ak al xasraj ñaari giir yoo xam ne ñoo dëkkoon ci madina ak noonoo dafa amoon seen diggante goo xam ne dafa dem bañ jàpp ne histoire mënatul a dem ba jubale xeet yi bi yonente bi sallallahu alayhi wa ñëwee ñoom ñépp ñu ànd dugg ci lislaam mu dal leen di yar teg leen ci yoon woo xam ne lim leen jural mooy xeet woowu dem bennoo ba nekk ay doomi ndey bi bennoo googu amee moom la alquran ne wa allafa bayna qulubihim moom borom bi tabaraka wa taala moo boole seeni xol muy wax yonentam bu ne ko law anfaqta ma fi l ardi jamian ma bi bayna qulubihim soo dépensé woon li ci àdduna ak li ci biiram lépp ci alal ngir boole leen loolu du tax ñu bennoo walakin allaha allafa baynahum waaye yàlla moo leen boole kon booloo xol yi ak bennoo gi ak bëggante gi loolu du alal a koy def ndax boroom alal yi lañ gën a xam mooy xëccoo la ñuy def kon alal benn lewut du aw askan a koy def ay nit a ngi fi bokk aw askan léeg-léeg bokk ndey ak baay sax am te duñ nuyoo far kon aw askan benn lewut waaye li nga xam ne moo mën a benn leen nit mooy diine diine moo mën a yar nit teg ko ci yoon woo xam ne soo laalee kenn ki mel na ne laal nga ko ca des su lor dalee ci kii mel na ne ci kaw kii la dal seenug àndandoo moo gën a dëgër ak doomi ndey lépp loo xam ne mi ngi jiima dindee loolu ci diggante jullit yi mu ngi koy jiima dindi xamal ne loola noonu diine la donte turu diine sax nag la yoon kon borom bi tabaraka wa taala bu waxee ne moom moo boole seeni xol kon su fekk moo boole woon xol yi ñooña te it ba keroog àdduna di tukki moom diine rek moo mën a boole xol yi kon nit ñi dellu ci diina day daal di doon loo xam ne lu farataw ci ñoom la bennoo gi faw comme ni ñu ko waxee jàpp ci alxuraan ak sunna dong mu ko mën a indi leneen mënu koo indi ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa baaxee na leen ba ñu am yëg-yëg boobu yëg ne diine fi ñu koy jële fenn la muy alquran ak sunna ñu am na lu leen borom bi tabaraka wa taala jagleel mu di ñi sóobu manhaju salaf saalih mu di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i am ak ñañ yar ñi jaar ci seen yoon ñoo am yëg-yëg boobu amma yeneen doomu aadama yi ci des ñeneen nit ñi yeneen di faral di boole ay intérêt lay doon ak ci bëgg-bëggi bakkan diine nag su ci intérêt duggee maanaam njariñ lu jëm ci yow wala sa bëgg-bëggu bopp bakkan moo la jëmee ci diine kooku moom su boobaa tàqalikoo dal nay dikk ci biir xeet wi ndax benn kuréel boo gis bu ne lu gis ne intérêt am la ak lu koy jëmee kanam ci loola rek ci lay xëy ci lay gont léeg-léeg sax mën naa dem ba lii doon intérêt moom nekk lori lislaam ci boppam waaye su boobaa yi diisu ko geesu su boobaa diisu ko geesu kenn ku nekk yëg na fii ci sunum réew ay njaaxum yu rëy rëy yoo xam ne ñu ngi koy teg ci kaw lislaam jullit yi toog duñ ca am yëg-yëg fekk li koy waral mooy kenn ku nekk am na sa kuréel boo xam ne da ngaa jàpp ne suñ ko laalul kenn laalul lislaam doon naa ko wax mbokk yi junj naa leen ko ci benn mbind ne leen li fi xewoon ca gannaaw muy doyadal yilimaan ba àggale ko ci ci bërëb yi ñuy seetaan daf fi ab film boo xam ne lépp doyadal imaam la ba jeexal te yilimaan ci lislaam ba lislaam di doon lislaam ju jaxasoo wut kawe mooy la gën a kawe ci lislaam amut leneen lu ko féete kaw waaye bi mbir moom amee yëg-yëg yi amewul noonu solo nit ñi seetaan nañ ko dawal ko ñi jël ko di ko jaayee ko jënd di ko tasaare ñu koy seetaan di ci ree di bég te fekk ki ñuy doyadal mooy kan imaam li gën a rëy place bi gën a rëy ci lislaam ma ne leen jëm bi tegandaay boobu ñu teg imaam wone ko ñi di ko reetaan di ko suufeel su doon imaam foofu turu xalifa lañ ko jox ab xalifa balaa film bee jeex ba watuut Sénégal tàkk kon loolu mooy dem naa man doomu aadama wala man jullit ba jëmmi géewub lislaam bu yaatu bi nam rëddee yaatuwaay bi yëgatuma ko waaye rëddu kër gi rek laa yëg loolu pexe noonu la pexe tàqale jullit la fexe yi soril nit alquran ak sunna la te du ko yëg da ngay dem ba jëmmi lislaam ci boppam mën nañ koy doyee dal doo yëg ne doo yëg loolu yow te doon jullit jullit bi dafa war a dem ba diineem ngëm-ngëmam xam-xamam jéggi frontière sax waxuma la ci biirum réew waaye fépp foo xam ne lislaam àgg na fa fépp foo xam ne lislaam àgg na fa ci kaw suuf dafa war a yëg ne foofu këram la diine ji diineem la ku ci laal dara wala nga ëyibal ci dara ci kawam nga dal yëg-yëg boobu li fi jullit bi amu ko war naa seet boppam ba xam lii di dox digganteem ak loolu lu mu doon mu sànni loola ci àll ba ñetteel bi ci tomb yi nga xam ne daf laa war yow muy woote ne jullit nga ngir nga mën koo wane mu doon aw lay wu firnde ñi xam ne yow jullit bu topp sunna nga moo di alxadar min fitnati liftiraati wa tashardum wattandiku fitnay tàqalikoo xodayfatu bnul yamaan muy saxaabi yu bu màgg boo xam ne ci saxaaba yonent bi salallahu alayhi wa sallam la bokkoon dañ ko daan tudde sax boroom secret yonent bi salallahu alayhi wa sallam li taxoon ñu tudde ko loolu moo di yonent bi salallahu alayhi wa sallam daf koo waxoon turi naafiq yépp mu xam leen xudayfa dafa nettali benn xadis mu ne kaana annaasu yasaluuna rasul allahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam an alxayri wa an alchar ne nit ñi dañ daan def saa bu yonente bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam toogee lu baax rek lañ koy laaj mu ne man nag su ma ñëwee safaan balaa koy laaj lu baax lu tax mu ne ngir ragal tàbbi ci lu baax kon nit ki ni mu war a xame lu baax noonu la war a xame it lu bon ndax boo xamoon lu baax kese kat te xamoo lu bon it mën ngaa tàbbi ci lu bon te doo yëg ne doo yëg ne yaa ngi ciy tàbbi nee na fa qultu ya rasulallah inna kunna fi jahiliyatin wa shar fa jaa allahu bi hada alxayr fa hal baada hada alxayr min shar nee na ma laaj yonent bi ne ko yow yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne ko nun day noo ngi nekkoon ci ak réer aku ceddo aku ay yàlla dem ba mu soob ko mu indi yiw wu mag wii jaarale ko ci sa loxo muy lislaam waaw yiw wii yiw wu baax wii ndax bu fi jógee aw ay dana amaat qaala naam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw waaw danañ dem ba ca kanam aw ay dikk qultu wa hal baada hada charri min xayr nee na ma ne ko waaw ay woowee di ñëw ndax aw yiw dana ca tegewaat qaala naam wa fihi daxan nee na mu ne ma waawaaw aw yiw dana ca tegewaat waaye yiw wu ànd ak njaxas la yiw dana ca tegewaat waaye wu ànd njaxas la qultu wa ma daxaluhu nee na ma ne ko lan mooy njaxas la bu boobaa qaal qawmun yahduuna bi gayri hadyi taarifu minhum wa tunkir mu ne ko nit ñoo xam ne nañuy jàngalee bokkul ak sama jàngale la ñuy indil nit ñi bokkut ak la ma indi woon man léeg-léeg nga gis leen nag ñu def lu baax waaye léeg-léeg ñu def lu bon qultu fa hal baada dalika alxayri min char nee na ma ne ko waaw yiw woowu nga xam ne dafa ànd ak njaxas ndax bu yàggee ay dana ca tegooti qaala naam mu ne waaw duaatun ila abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha xadafuuhu fiha mu ne ko ay wootekat su boobaa yoo xam ne ci buntu jahannama lañ taxaw ci buntu sawara képp ku leen wuyu ñu tàbbal la sawara waliyaadu billah boo xoolee ci jamono ci jamono tey géew ya gën a gaaw a xumb ya gën a gaaw a xumb doomu aadama gën ko gaaw a nangu du bokk ak lu mel ne lu mel ni seen ndaje mi maa ngay gis ay géew yoo xam ne dañ lay wax ne jenn jëmm ji day fay nangam door a ñëw waaye waxtu wañ leen wax balaa jot ku bëgg a demati doo mën a am billet doo mën a amati ticket bu lu yóbbu te foofu boo fa demee loo fay fekk doo fa fekk luy soññee ci julli mukk doo fa fekk luy bëggloo nit ki lislaam doo fa fekk luy loo nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli sax mën naa jot te lañ fay def bu jotee duñ ko def suñ muccee ba ànd ak seeni xel itam du tax ñu dagg la ñuy def julli ji la gën a bari nag mooy dañ dul far sax ànd ak seeni xel kon ay wootekat yoo xam ne nee na loolu benn couleur la ci couleur yi wootekat yooyu waaye dul yépp nag nee na ay wootekat yoo xam ne ci buntu jahannama la ñuy taxaw te ku leen wuyu ñu sànni la ca qultu ya rasulullahi sifhum lana ma ne ko waaw melal nu ñooñu xudayfa yàlla na ko yàlla fay laajam yii amal nanu njariñ nun ñi ñëw gannaaw bi qaal mu ne ko hum min jildatina wa yatakallamuuna bi alsinatina nee na mu ne nun ci suñuy làmmiñ la ñuy wax bokk ak nun ci nun lañ bokk am na ñu ko firee ne dafay wax ne ci doomu aadama yi la am ñu ko firee ne dañuy wax ne sax ci biir jullit yi la nekk léeg-léeg ah mu ne ko loolu day na waar qultu fa maa taamuruni in adrakani dalik xudayfa nee na ma ne ko waaw lan nga may digal su fekkee ne fitna ju àgg fii nag fekke naa ko man nu may def qaal talzamu jamaat almuslimina wa imaamahum su boobaa taqool mbooloom jullit ñi ak seen imaam imaam buñ ko waxee mooy njiitul réew ci lislaam ka jiite jullit yi amirul muminin mooy seen imaam jamaatul muslimin mooy mbooloom jullit mi nga xam ne dañoo jaar ci alquran ak sunna mu ne ko su boobaa taxool ak ñooñu ànd ak seen imaam waaye xudayfa bàyyeegul ba tey nee na qultu fa lam yakun lahum jamaatun wala imaam dama ne ko su fekkee jamono dem na di bon di naqari ba àgg ci amatuñ mbooloo moo xam ne dañuy wax ne ñii mooy mbooloo mi topp alquran ak sunna waaye amatuñ imaam joo xam ne dañuy wax it kii mooy ki leen jiite ci lislaam su loolu amatul lu ñuy def qaal faatazil tilka alfiraqa kullaha walaw an taadda bi asli shajaratin xata yudrikaka almawt wa anta ala dalik mu ne ko bàyyil ñooñe ñépp kuréel ya bàyyi leen fa ñoom ñépp bul jéem a ànd ak kenn demal beru ji donte sax sa beru googu àgg na ci dangay dem ba ci àll nga bóof fi garab sax fa duutoo gisee kenn jàpp ca la nga xam ci sa diine ba bala fa dee di fekk nee jàppal ci loolu waaye bul jaxas ko ca fitna ja mukk loolu mooy daw fitna kon ci biir loolu xadis la bu màgg a màgg xadis la ci xadis yi wane ne fitna dana ñëw ci xeet wi xadis la boo xam ne daf nuy jàngal ñii góorgóorlu di jiima jàpp ci seen diine di jiima dellu ci seen diine lan moo leen war kon kuréel bi nga xam ne mooy kuréel bi nekk ci njub muy kuréel kuréel bi jàpp ci siraatul mustaqim kuréel bi jàpp ci alquran ak sunna kon ci seenu dund ndeke ay mbir mën na leen a gaar mbir yooyu boo ko seetloo yenn ci yëf dana leen gaar lenn lu ci nekk su ñëwee am na lu la war yow jullit bi mbir yooyu mooy imaam a ngi fi maanaam jiitul jullit yaa ngi fi jaar ci siraatul mustaqim aw yoonu lislaam mbooloom jullit yi ñu ngi fi jaar ci alquran ak sunna lii mooy melokaan bi gën ci melokaan yi imaam ji jub na jaar ci siraatul mustaqim mbooloo mi jub nañ aw ci siraatul mustaqim imaam su ma ko waxee mooy la ngay tuddee njiit moo xam président nga koy tudde wala roi wala lu mën a doon ka nekk ca boppub mbooloo ma mu tege fa su fekkee ni ci turu lislaam la jaar di wommat nit ñi ci lislaam jaar ci siraatul mustaqim mucc ci ay bidaa ak i caaxaan mbooloo ma nekk ci siraatul mustaqim topp ci gannaawam ma ne bii mooy melokaan bi gën ci melokaan yi mooy melokaan bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dekkoon ba jóge fi alxulafaa u rachidun abu bakar wa omar wa osmaan wa ali ñeenti xalifa yépp dund ci loolu ba mu jeex kon ñii ñoo nekkoon ci melokaan wi gën a kawe melokaan woowu yépp mooy wi nga xam ne jullit bu nekk su déggee diineem bis bu ne jéego bu muy soqi di ko bu muy seqi di ko ji seqi jëm fenn wala yëngatu bu mu yëngatu bu ne ci jiima delloo siwaat melokaan woowu ci lay nekk su fekkee jullit bu xellu peuple bi jub seen njiit jub jaar ci siraatul mustaqim kon ñooñu su leen gaaree yéen jullit yi melokaan wu mel noonu su ngeen demee ba mu am lan moo la war yow jullit bi bu boobaa day war ci képp koo xam ne ab jullit la mu jaxasoo ci biir mbooloom jullit mi te du dagan mukk itam muy contre di génn imaam ji nga xam ne melokaan wi la yor imaam bi nga xam ne melokaan wi la yor du ko saña wan gannaaw li muy man mooy topp ko ndax jub na kon lislaam su tëddee ni mu war a tëddee dëgg dëgg bay àtte bay dox ah ay opposant du mën a am duñ mën a dem ba mu yàgg ñu ne diwa ngi créé partem boo xam ne li mu ci jublu mooy daaneel imam ji nga xam ne mi ngi àtte alxuraan ak sunna mucc ci bi bidaa di woote siraatu mustaqim kooku bu daanoo adduna tukki kon mënoo samp sampal leneen ca wet ga di woote ca loola bëgg mbooloo mi ñu wuy la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ku leen dikkee te fekk seeni mbir benn la seen mbir nekk benn mu di leen woo ci boppam génn bañ a topp njiit la nee na dagg leen aw loosam su booba foofu di boo onut ko fu la dañu ko dóor kon soo xamee ni imaam jub na mbooloo mi nekk ci gannaawam jub keneen sañ sa ñëw samp aw raayaam ne kaay leen fii kenn dutu ko sañ ndax kon jullit yi ngay ji ma tàqale te kenn war leen a dañoo war a nekk benn kooku kon mooy melokaan wu jëkk wi te mooy melokaan wu màgg wi ma wax ne jullit yi ci seen liggéey ci biir loolu la war a nekk di liggéey ngir delloosi ko ba mu fi jógee ba tey nag delloosiwaat ko jafe na lool ngir ay gàllankoor yu bare bari melokaanu ñaareel bi mooy imaam nekk fi njiitul jullit yi ñu ngi fi waaye imaam bi mu fi nekkee it ci biddaa ne waaye nag moo jiite jullit ñi bu ñu waxee ne imaam nag yoo xam ne ci biddaa la nekk waxuñu la imaam ju ne ci kéefër bokku la kéefër biddaa jàdd na xàll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lenn ci ay mbir waaye teewul moo jiite jullit ñi mi ngi àttewoo sharia bu julli jotee mu génn ci mbooloo mi julli ñi di ko gis bi mu melee noonu am mbooloo mu nekk ci biir xeet wi ñoo xam ne mbooloom sunna lañ mu jàpp ci alquran ak sunna di góorgóorlu bu baax a baax lu leen dal ca loola itam ñu di ko muñ nag loolu lay misaalam mooy jamonoy xalifa bi ñu daan wax al muy doomi Haaruna Rachid Ma'mun dafa jiite jullit yi nekk amirul muminin ba noppi nekk ci bidaa kuréel bi ñuy wax al muy ñu mooy alquran ak sunna ñu topp seeni xel ñooñu dañ koo jàpp di ko nax di ko nax di ko nax ba mu gëm lañ nekk ba mu gëmee lañ nekk itam fas yéene nag jullit yépp it dikk nag gëm loola ku mu dégg ñu ne kii mi ngi jàpp ci alxuraan ak sunna te gëmul lim gëm mu yónnee woolu ko mu ñëw mu mbugal ko ci biir loolu al imaam ahmad ibn hanbal ak ña tolloo woon ak moom jamono te nekk ci sunna ci lañ leen fitnaal fitna yu metti ci xeeti tëj ak dóor ak lépp loo xam ne metti nañu teg ko ci seen kaw ci imaam yi toll noonu loolu ci jamono yi ma amoon ibnu Harun Rashid ci la woon mbir mu mel nii su amee mbooloom sunnaa ngi am ci biir xeet wi di dund xëy na ñëpp nekkuñu ahlu sunna waaye mbooloo ngi fi waaye njiit lee tam mi ngi fi moom itam waaye nag am na bidaayum topp su boobaa jullit bi ahlu sunna wal jamaa lay wax ne yaari yëf war na ko la ci jëkk mooy ànd ak imaam ji nii mu mel mu tax mu génn toppuk imaam ji na doon kenn ci mbooloo mi topp imaam jooju topp imaam foofu nuñ koy xame su wootee ci jihaat ñu génn ànd ak moom jihaat su wootee ci julli ñu génn ànd ak moom julli su jiitee ñu julli ci gannaawam nekk kenn ci aw xeetam li feeg nag diglewut ak mooy yàlla su diglee ak mooy yàlla duñ ko ca topp loolu moo tax al imaam Ahmad ibnu Hanbal dafa daan wax ne su ma xamoon bis bi nga xamee ne ci lañ may nangul ak ñaan ñaan googu dama koy jagleel njiit li kim ci jublu woon mooy ma amoon te jamono yooyu mi ngi ci kaso bi ndax xam naa ne su jubee ñépp jub ànd ak loolu li ko yóbbu ci kaso bi mooy lu mu leen digal te dëppoowut ak alxuraan ak sunna ñi bañ ko kon njiit li su diglee lu dëng di su ko topp waaye nag teewul jiite gim jiite moom ngir daw fitna ahlu sunna dañ leen topp leen ci gannaaw li féeg mi ngi julli nit ñi di ko gis muy julli muy woote ci lu jihaad di woote ci aj di woote di julli nit ñi di ko gis muy xutba ci seen kanam ñuy julli ci gannaawam kooku njiitul lislaam la jullit yi sañu ñoo samp fenn beneen drapeau di wax ne kaay leen wuy si ma ñu loolu ci gannaawam rek lañ saña a kooku mooy tomb bu njëkk bi tomb ñaareel bi mooy yow jullit bi ànd ak imaama ngi fi di attewoo lislaam waaye di gëm lenn ci ay bidaa yow li la war mooy nga suubu ci manhaju ahlu sunna wal jamaa biddaam yooyu sañoo ci jël dara lépp da nga koy bàyyeeg moom mbooloom lislaam mi nga xam ne ñooy woote ci lislaam it te teg ko ci alxuraan ak sunna day jaadu ci yow nga dikk ànd ak ñoom dimbalante ñoom ngir jëmale lislaam jëmale euh, dolli dooley lislaam bennoo gi ak dimbalante gi dafay dolli dooley lislaam moo tax ci biir xadis bi da ngay gis mu ne ko talzamu jamaata almuslimina wa imaamahum da ngay taqoog mbooloom jullit ñi waaye nga taqoog seen imaam itam nag waaye nag imaam ji li feeg digle wut mooy yàlla su digle mooy yàlla kenn du ko ci topp kooku mooy melokaanu ñaareel bi melokaanu ñetteel bi mooy imaam boo xam ne ci sharia la tegu amut imaam bu tegee ci sharia amut waaye mbooloo am na moo xam ne ñi ngi góorgóorlu ñoom di dox ci sunna di góorgóorlu ci sunna kon lan moo war jullit bi foofu la jaadu ci moom mooy mbooloo mi tegu ci alxuraan ak sunna di ci jéem a góorgóorlu na dikk jàpp jàppalante ñoom dimbalante ak ñoom ñi jaar ci alquran ak sunna ba tey loolu xadis bi ni mu ko waxee tal sama jamaatul muslimin wa imaamahum day tegtale loolu ba tey ñeenteelu melokaan bi moo di jullit yi amuñu imaam ñaareel ba gisut itam mbooloo moo xam ne ñi ngi jóg taxaw di woote ci manhaju as salafu saalih la yonent ba nekkoon ak saxaabaam xool na xool xool gisut koo xam ne ci yaar woowu yoon woowu la jaar di ca woote su boobaa nan lay def dana jaadu ci moom mu gëstu moom jullit bi jiima seet doonte kenn doonte ñaari nit ñoo xam ne gëm nañ la yàlla yonent ba nekkoon na ci saxaabaam mu jiim leen a dajale fi béréb ñu jiima góorlu jàng tasaare xam-xam tasaare diine ngir ñu mën a delloosiwaat mbooloo ma yonent ba sallallahu alayhi wa sallam formé woon ak ci saxaabaam ñu mën a jéem a amalaat ñu mel noonu loolu ma wax noonu lu salafu saalix xéroon la ci bu tumuranke demee ba tar ba jéggi dayo ba sunna di su ko xaw a gis ahlu sunna ñi jéem a góorgóorlu dajale seen bopp loolu asalafu saalix dañ ci daan soññee euh, ibnul waddaax al yashkuri rahimahullah ci benn euh, <coughs> bu ñuy wax al bidau wa nahyu anha mi ngi waaye benn leetar boo xam ne imaam bu ñuy wax asad ibnu muusa euh, imaam bu yàgg la ndax ci ñaar téeméeri ak fukk ak ñaar ci la faatu moom asad ibnu muusa mu bind benn leetar fekk moom ma nga woon ca penku bind benn leetar bu jëm ci sowu yónnee ko ku ñuy wax asad ibnu furaat asad ibnu muusa moom ñu ngi ko daan siiwee di ko wax asadu sunna lañ ko daan wax gaynde ak sunna mu bind ko benn leetar Asad ibnu Furaat nekk ci Maghrib ci Andalus bokk ci àndandoy imam Malik mu ne ko li tax ma bind la leetar bii day moo di dafa am nit ñu jóge ci sam réew jaaroon fi fu sori ca penku booy xuraasaan ñu nett li ma ci yow jëf joo xam ne wax ju rafet la ñu wax ci yow wax ju rafet ci sa jàpp ci sunna ak ci sa maandute ak ci sa rafetu jikko ak ci sa taxaw nag ci xeex biddaa ak suufeel ko ak gàcceel ñi nga xam ne ci biddaa lañ jàpp yàlla dëgëral la ci sunna ba yëkkati sunna ci say loxo yàlla toroxal biddaa ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biddaa ba sax ma dégg ne dem ngeen ba àgg ci kuy jëfandikoo bi daa léegi da ngay yum yumi di nëbbutu doo bëgg nit ñi gis ko lii moo tax ma di la bind di la wax ne la abshir bégal bi sawaabi dalik xamal ne loolu lu am yool la jàppee loolu ne ci li gën ci say jaamu yàlla la moo gën julli naafil la moo gën koorug naafil la moo gën ajug naafil la moo gën sax lu bari ci jihaad ne ko yëkkati téere bi yàlla ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a màgg li lépp ci leetar mu ne ko nag waaye góor góorlul fexe ba sa woote ci sunna gën koo tasaare fexeel ba amal mbooloo noonu la ko ko waxe de xatta yakuna laka dalika ulfatan wa jamaa yaqumuuna maqaamak in xadasa bika xadas jëlal mbooloo jàngal leen yar leen teg ci li nga nekkoon ndax jamono yoo xamee ne dara xew na ci sa mbir ñu mën a jóg taxaw sa place te def la nga doon def lan mooy ràppal woote yi woote yi woote yi mag ñi li koy ràppal lu mu doon moo di la nit ka nekk moom ma doon jàngale di yar lam nekk mu bañ ca yar nit bañ ko ko jàngal ba mu mel ne moom kilifa ga day toog rek fële ñu ne kooka moom ku mat la koo xam ne àgg na ci yàlla jeex na taalibe seen it mooy ñoom ñi toog fële ñoom itam saa bu leen soxlaa rek def leen nangam ñu dem defi nàngam noppi naa ci yéen noppi naa ci yéen ñu dem loolu mooy seen mbir digganteem ak boroomam xamuñu ci dara léeg-léeg sax ñu toog ba waxtu julli jot mu ne waaw julli leen daal di jóg tàbbi ci biir néeg bi julli jullee ba àggal del si waat toogaat kii jàngalewut yare wut ci lislaam léeg-léeg sax ab jataayam nit ki du ñeme toog fa ba mu yàgg mu sulli masala moo xam ne ci diine lay aju su nit agsi woon ne damay laaj sama diine boo wëttuwut ña fa toog toroxal ko ci wax wala ci jëf ne kii dafa ñëw di nattu si sëñ bi da koy seet ba xam fan la xam-xamam toll moo tax mu ñëw naan masala yi diine lay laaj nii rek la ñuy def boo waxee nga naan ay masala ay masala toroxte moo cay tegu kon ñàkk a yar nit ki ci li nit ki xam moom ak lim nekkoon ñàkk leen ci yar former leen ci mooy tax mu jóge fi lam nekkoon dagg lam nekkoon dagg mooy lan mooy nit ñi mën nañ faa nekk doon mbooloo waaye siraatul mustaqim ba nga xam ne moo taxoon mbooloo di war a dajaloo fi béréb boo ko xoolee duutoo ko gis du nekk ci pas-pas yi du nekk ci jaamu yàlla yi du nekk ci jikko yi kon lii moo tax imaam bu màgg bi mu ne ko fexeel ba amal mbooloo moo xam ne da leen di yar ci sunna ñu mën a taxaw sa place su fekkee ne dara xew na ci yow maanaam soo fi jógee fa yakunuuna aimmatan baadak su ko defee ñooñu sa gannaaw danañ mën a doon ay imaam ay njiit mën nañoo tasaaroo ubbi àdduna fa yakunu laka thawaabu dalika ila yawm alqiyaama su ko defee loolu da nga ci am yool boo xam ne day continuer ba yowm alqiyaama képp ku jëf ci lu baax loolu ba kero yowm alqiyaama yow da nga ciy jariñ yow mi tasaare woon sunna kon loolu lu màgg lu am solo la muy leetar bu lay won ne salafu saalix ànd ak ne lii jamono ju teel la jamono ju teel la ndax booba taabion yi jeexaguñ ci lañ doon bind leetar boobu kon mu lay won ne mu lay won ne eh, ci jamono ju teel teeloon nañoo yëg ne suñ demee ba ci ci am sunna néew ñi nga xam ne ñoom ñooy góorgóorlu ci sunna war nañoo seet ñu def bu boole seen bopp te booloo googu tegu ci kër siraatul mustaqim tegu ci alquran ak sunna bànneexu bakkan du ca dugg intérêt personnel bu jëm si ci doomu aadama ji du ci dugg lépp rek taxawal alquran ak sunna tax koo jóg foofu lay amee njariñ waaye su ca leneen duggee rek njaxas dikk su fekkee jullit bi kon amul kenn koo xam ne ci moom lay mën a dellu suñ jàppoon ni lu mel noonu am na te xëy lu mel noonu moom borom bi tabaraka wa taala mën naa dogal du am mu di nit ki moom dong mu nekk ci sunna fi béréb gëstu seet seet seet gisul keneen xëy na ñi nga xam ne ñooy dem ci réew yi dul réew yi jullit lu mel noonu léeg-léeg mu mën koo mën leen a gaar fi béréb mën ngaa wàcc ci béréb boo xam ne yow dong sax yaa fa waaye dañ ne su fekkoon ne jéem naa seet gëstu na seet kem kattanam gisul keneen koo xam ne mi ngi ci sunna gisul keneen koo xam ne mën na ko woo ci sunna mu dugg ci sunna nee na foofu lay jaadoo mu beru comme ni la ko xadis bi waxee daw làqu ji bàyyi kuréel yépp dem làqu ji donte da ngay bóof fi kanamu garab di jaamu sa borom tabaraka wa taala ba dee fekk la fa ñu ne benn mu def noonu wala mu gàddaay jóge ca béréb ba mu nekk dem ci bërëb boo xam ne bu fa demee fekk fa sunna ñaari mbir yooyu moo fa demal beru ji wala nga gàddaay dem kon ñeenti melokaan yii rek ñoom ñooy mën a gaar nit ñi dox doxinu sunna ci ci àdduna fitna nag dafa doon loo xam ne lu mat a wattandiku la borom bi tabaraka wa taala daf ne wattaqoo fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa wattu leen fitna ndax fitna joo xam ne bu ñëwee du yem ci boppu borom day maasale ña nekkoon ci njub ña nekkul ci njub jooju fitna ci yi gën a mën a wattandiku ci la bokk wattu fitna nag ci yi lay nekk sellal nit ki li muy def ne yàllay kese tax nay jëf-jëf ju baax nay digle lu baax di tere lu bon na topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fitna ji gën a rëy ci fitna yi mooy juuyoo ak sunna moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ne fal yaxdar fal yaxdar alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ñi nga xam ne dañuy juuyoo ak ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu day war nañoo wattandiku de war nañoo wattandiku fitna ju màgg wala mbugal moo xam ne mbugal mu metti la moo xam ne su ñëwee duñ ko mën a dékku loolu nag day jaaru nit ki moom lépp loo xam ne luy nuru bidaa la wala day nuru juuyoog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daw ko daf koy daw moo tax euh, asalafu saalix dañ daan daw borom bidaa dañuy wax ne imaam bu mag bu ñuy wax euh, ayub asaxtayaani dafa am ku ñëw boo xam ne ci almortasila la bokk muy ñi nga xam ne ñu xóot ci bidaa lañ ñëw fekk ko mu jàngale ba génn dem mu ne ko yaa Ababakar dama bëggoon nga may ma rek ma wax ak yow benn baat góor gi woon ko gannaaw ne ko wala nisfu kalima ne ko genn wàllu baat sax duma la ko may nanguwuñu woon a wax ak ñoom ndax biddaa ci boppam dafa gaaw a indi lër ci xol buñ la ko sànnee ci xol fekk xol bu woyof nga yor kooku mën naa jaxase sa diine yépp fekk benn baat boo déglu la moo tax mu ne ko wala nisfu kalima benn genn wàllu baat sax duma la ko may waaye nag ci gàddaay biddaa ak ànd ak waa biddaa ak ñàkk ànd ak moom toujours doon nañu wax mbokk yi ne nañ koy bàyyi xel ci ne du caagi ne ku nekk ci biddaa ku ne rek dañ koy daal di atte atte bi yéefar daal di koy won gannaaw duutoo ànd ak moom duutoo jëflanteeg moom déedéet dañuy wax ne kii gàddaay borom biddaa ñaar la ki nga xam ne wóoluwut boppam ragal na ne bu jaxasoog moom mën na ko wàll biddaa kooku na daw na daw ak diineem wala ki nga xam ne maqaamaam àgg na ci bu ko gàddaayee dana tiit bàyyi biddaa bi kooku na ko gàddaay na ko mere ndax su ko ko defee mu mer mu tiit bàyyi biddaa bi ñëw tuub dellu ci sunna ñaar ñooñu moom ñoo sañ a gàddaay borom biddaa waaye teewul fii al imaam al Baghawi day wax ne gàddaay buñ koy wax ci pas-pas wala ci biddaa foofu lañuy ñuy gàddaay nit di ko bàyyi waaye bu fekkee jooyoo yi am ci diggante nit ñi ci masalay fiq la ci masalay fiq yi dox ci diggante nit ñi nee na yooyu kenn ci gàddaay nit nee na saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon nañ juuyoo ci masalay fiq te teewul ñu doonoon ay mbokk kon masalam fiq warta tàqale ay mbokk nee na doonoon nañ ay mbokk ñu yërëmante lañu woon benn kuréel bu mën a doon ci ñoom soo juuyoo sa moroom itam kenn na tablewut na ñoom ñëpp gëstu dëgg ci lañ nekk waaye nag loolu ci kaw dalil bañ a ñëw fis leer nañ ñu xam ne lii la yonent bi wax lii la yàlla wax nga ne ah lii kat kon ginnaaw ci fiq la jaar nu ma neex rek jële jëfe noonu déedéet waxee sul noonu waaye léeg-léeg masala day ñëw boo xam ne mu xóot lay doon boroom xam-xam yi dañ ciy juyoo ñii ne nii la ñii ne nii la la ko waral mooy xóotaayu masala ma ak xóotaayu firnde yañ sukkandiku ba amal masala ma su boobaa loolu su ca juyoo amee kenn ku nekk def sa kem kàttan ngir bëgg a àgg ci dëgg waaye yàlla dogal dëppoowuñ su boobaa gooba juyoo nañ ko bàyyi noonu buñ ko kenn àggale ci xol yi buñ ko ubbi mukk mu doon ak noonu waaye nag bu fekkee buntu bidaa la wala buntu pas-pas la kii day fas leneen ci yàlla wala mu yëkkati doomu aadama ba teg ko palaasu yàlla lu mel noonu foofu juyoo dafay ñëw gàddaay nit fay war su fekkee ne mënee su ko delloo si ñeenteelu li lay war yow jullit bi wala juróomeel bi mooy alqiyaamu bi talabil ilm sàkku xam-xam daf laa war yow jullit bi borom bi tabaraka wa taala daf ne faalam annahu la ilaha illa la ilaha nga xam ne mooy baatu tawxid bi nga xam ne kii dugg ci lislaam moom lay jëkk a wax kooku sax des koo war a xam fa alam su fekkee kooku des koo war a xam dalay wan ne diine lépp dañ ko war a xam laa ilaha illallah dañoo war a dégg maanaam yi xam lu muy firi arab yu jëkk ya ba lislaam wàccee li tax ñi doon leen wax laa ilaha illallah wax leen ko ñuy lànk di daw ah jaral leen di xeex di tuur seeni deret pour bañ a wax laa ilaha illallah mooy xam nañ lu muy firi xam nañ ne suñ ko waxee li muy tekki mooy seen xërëm yi ñu doon jaamu yëpp bàyyi nañ ko nangu nañ ne benn yàlla dong moo am muy ci bind asamaan ak suuf ak doomu ak lu dul moom loolu moo taxoon laa ilaha illallah jooju nanguwuñ biñ demee ba jëmmi jamono nag nit ñi xamatuñ laa ilaha illallah nit ki naa ñëw bis bu nekk mu xëy waxal la ci laa ilaha illallah lim bu baree bari bu génnee di dund dund goo xam ne ku juyoo dundug lislaam la li ko waral mooy ñàkk xam laa ilaha illallah lu muy firi kon faw laa ilaha illallah jullit yi ci seen xam-xam liñ war a tàmbale mooy xam baat boobu ñuy wax pour dugg ci lislaam mooy lan loolu suñ ko defut ah xam-xam day buntam day daal di sakk parce que bunt bi foofu la tàmbale moo tax borom bi tabaraka wa taala ci aaya boobu suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbik xamal ne la ilaha illa allah te nga jégglu say bàkkaar kon faw ñu xam maanaam la ilaha illa allah xam ne amul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit xam nga ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na ko waqul rabbi zidni ilma waxal ne yàlla yàlla nag ma dolli xam-xam amul feneen foo xam ne danañ gis leneen lu yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaan ko ma dolli la ko waxu ko ne dool li ma alal waxu ko ne dolli may doom dolli ma njaboot dolli julli yooyu yëpp amut amut beneen ñaan bu mu ko waaye xam-xam moom nee na ko ne yàlla dolli ma xam-xam kon loolu li muy tekki moo di jëmmi xam-xam ci boppam amut loo xam ne moo ko gën a tedd loolu moo tax la gën a tedd ci yi am rek moom la borom bi tabaraka wa taala digal ab yonentam mu ñaan ko mu dolli ko biñ laaje borom xam-xam bu mag al fudayl ibnu ayad radiallahu taala ko laajee ne ko boobu mooy lan maanaam sàkku xam-xam dafa war bépp jullit mu ne ko kullu amalin kaana alayka fardan fa talabu ilmihi alayka fard bépp jëf boo xam ne bu war ci yow la sàkku xam-xamam lu war ci yow la bépp jëf boo xam ne sàkku ko jëfe ko dalaa war sàkku xam-xamam war na la kon la jëkk a war yow jullit bi ci lislaam moo di laa ilaha illallah kooku sàkku xam-xamam moo la jëkk a war kon gannaaw bi julli da lay daal di war kon sàkku xam-xamu julleeg la ci aju ak la koy wéral day daal di doon lu war ci yow waaye nag am na yeneen yoo xam ne doo dugg ci lislaam rek mu daal lay war day ami char lu mel ne asaka du jàggi ne ñëpp la war ka am alal la war kon jamono yoo amee alal sàkku xam-xamu asaka daal di war ci yow aji màkka nekke noonu ki man ci alalam ak ci wér-gi-yaramam kooku la war kon fu mu ko mënee rek sàkk ko day daal di waaye nag rafetlu nañ rafetlu nañ même yi la war a gut soo mënee sàkku seen xam nga sàkk ko ba bis bu ko waree nga daal di dem nga daal di koy mën a jëfe jikko kon nag xam-xam bi tax ñuy wax foofu mooy xam-xam boo xam ne mooy bii wéral pas-pasu jullit bi di wéral diineem ci wàllu ay jaamu yàllaam di ko xamal boroomam di ko xamal yonentam mooy xam-xam boo xam ne lay cosaanam mooy ñetti xam-xam yi comme ni ko alxaafis ibn xajar di waxe mooy tafsir ak xadis ak fiq ñetti xam-xam yi nit ki daf ci war a jima góorgóorlu képp kàttanam tafsir ak xadis ak fiq ndax yooyu su ko jàngee dana jàng ci biir wàllu pas-pasam dana ci jàng lu bare itam ci diineem dëgg la xam-xam lu bari ay ay bunt bu aju ci sàkku xam-xam ak lu ci aju wax yu bare bari mënees na ko wax foofu waaye ci gàttal moo tax euh, diisul xóot foofu di ci wax yu bare bari ala kulli xaal kii sàkku xam-xam bu fekkee ne euh, gis na ña muy sàkkoo xam-xam war naa jéem a góorgóorlu mu tànn mu tànn cee jàngalekat ya ñi ci gën a jaar ci siraatul mustaqim ñi ci gën a jub jàpp ci sunna ëpp ci itam xam-xam loola moom la war a jiital jamono yoo xam ne gisut loola nag wala manqué na fenn fu ne la fa sës a fa sës waaye eh, boroom xam-xam ñi nga wax ne ci jubul moom même fatwaam sax gisu ko jëfe al imaamu nawawi day wax ne inna al fasiqa la tasixu fatwaahu bi ijmaa al muminin muslimin ki nga xam ne jubut ab kàccoor la même su fatwa wax ci diine ne nangam nii la nee na loolu kenn du ko loolu nee na jullit yi dëppoo nañ ci juróomeelu yi lay war yow jullit bi askanoo ci asalafu saalix moo di albadu bi daawati ila tawxid sab woote ci lislaam nga tàmbalee ko woote ci tawxid ndax tawxid moo jiitu loolu moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi mu yónnee Muaaz ibnu Jabal euh, radiallahu taala anhu yaman da ko faa yabal muy woote ji mu ne ko innaka taqdumu ala qawmin min ahli alkitab yaa ngi jëm ci nit ñoo xam ne ahlu kitaab lañ ñu doon jàng téere lañ ay nasaraana fa nekk nu may def mu ne fal yakun awala ma tadoohum ilayhi an yuwaxidu allaha taala kooku mooy riwaayu buxaari la nga leen di jëkka woo na doon tawxid fa ida arafu dalika fa axbiruhum an allaha farada alayhim xamsa salawatin fi yowmihim wa laylatihim su fekkee xam nañ loolu li tax ma tànn riwaay bi mooy daf ci am yu bari yoo xam ne dafay seddali li ma la doon wax ne xam laa ilaha illa laa ci boppam ak tawxid xam la laaj moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam daf ne ko fii fa ida arafu dalik su fekkee ne xam nañu xam nañu li nga leen doon jàngal ci tawxid su boobaa nag nga jàngal leen yàlla faratal na ci ñoom julli yàlla ñoom ci koor yi ba xadis ba jeex beneen riwaaya bi daf ne ko uduuhum ila shahadati an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah woo leen ne nañ seede ne amul benn yàlla ju ñuy jaamu mu doon dëgg ju dul yàlla man itam maay yonentam xadis boobu Buxaari ak Muslim génne na ko waaye noonu ma ko waxee noonu la ko Buxaari solo bokk na ci yi lay war yow jullit bi juróom-benneel bi moo di al iman bi kulli ma axbara bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mimma yakunu ba'da al mawt jullit bi ngir njullitam wér faw lépp loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko ci ay xabaaram mu jóge ci sunna wala mu nekk ci biir alquran faw mu gëm ko ci li nga xam ne lépp day am gannaaw bu nit ki faatoo yonent bi wax na foofu nett li nañu foofu yu bare bare bare yoo xam ne nit ki bu faatoo daf koy dikkee yooyu faw jullit bi gëm ko la ci jiitu mooy fañ ko suule képp balaa nit ñaa yeewiku malaayika yay laaj ñi ngi dikk toog fi kanamam di ko laaj moo tax daf daan wax ne istaghfiru li axikum fa innahu al yusal wasalu ko tasbit jéggalu bu suulee ba nu àggal danaan jéggalul leen seen mbokkum jullit ndax kat ñi ngi koy laaj fii nu toll ñaanal leen ko aw tontam dëgër tontam dëgër ñetti yëf lañ koy laaj kan mooy sa boroom lan mooy sa diine kan moo doonoon sa yonent kan moo doonoon sa yonent su boobaa nag laaj yooyu dafa doon laaj yoo xam ne dañ koy waajale fii waajal ji du mooy nga bind ko ci ab kaye jàng ko ba mu mokk nga ne bu malaaka ma ñëwee bu ma laajee dana fekk ma mokkal comme ni nga koy defee ci examen déedéet yowmal xiyaam li ko wutaleeg àdduna mooy amatul njuuj njaaj lu nekk rek ci dëgg ga ngay jaar amatul amatul tappale suñ la laajee ci loo nekkoon da ngay tàmbali di lim cër yi ci boppam ñooy tontu al yawma naxtimu ala wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaksibuun loxo bi day taxaw man di nangam laa doon def tànk bi taxaw ne nangam ak nangam laa doon def làmmiñ wi kenn ku nekk di wax lam doon def kon fañ koy laaje foofu su fekkee ne diineem moo doonoon diiney lislaam borom bi tabaraka wa taala donc nit la gëmoon ne mooy yàlla amut keneen ku doon yàlla wala nga am benn cër boo xam ne dafay nuru cërub yàlla gëmit ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dong moo doon royukaayam ci kaw suuf kooku bu boobaa alhamdulilah tontu yu wér dana ko mën a tontu waaye nag su fekkee ci leneen la nekkoon su boobaa aw layam du mën a dëgër lam nekkoon rek lay mën a wax kon faaw jullit bi gëm yooyu yépp gëm ne laajug bàmmeel gi am na gëm ne mbugalum bàmmeel day dal ci kaw képp koo xam ne si yeyoo nga ko muy ko def loo xam ne day waral mbugalu mbàmmeel di am wala yaasu bi la yàlla na ci yàlla musal lu métte metti la addis yi koy détaillé détaillé bu doy waar la koy nettali yàlla na ci yàlla musal gëm ya nga xam ne mooy am bu yowmal xiyaam ñëwee dekki ga indi ñépp fi kanam seen borom kenn ku nekk ñi di la laaj ba nga defe ne yow dong la sa borom bindoon buñ noppee jox la sa téere ñi nangu seen i téere ci seen loxo ndeyjoor ñi nangu seen i seen loxo càmmoñ kenn ku nekk jëm fa nga jëm yooyu yëpp faw jullit bi gëm ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo joxe xabaar bi te lu mu wax lu ne dëgg wax lu dëgg la kon kooku day war ci nit ki mu gëm juróom-ñaareelu bi yi la war moo di al axdu bi zahiri al kitaabi wa sunna fi qadaaya al aqida jël alquran ak sunna ci lépp loo xam ne lu aju ci pas-pas la jëliin woo xam ne du ànd ak li ñuy tuddee taawil ak lem ak jiima sàkk leneen loo xam ne yaay fas sa fas fasu bopp ba noppi ñëw di ko seetal foo ko mën a sukkandiku ah xam nga ne ahlu sunna bokk na ci li ñu leen di xamee mooy dañuy ñëw ci alquran ak sunna bu yar bu borom bi rëddee ni nii la yonente bi sallallahu alayhi wasallam rëddee ni nii la ñu ne noonu la soo jëlee foofu door a fas bu dee fas-fas bu dee jëf nga door a jëf bu dee jikko nga door a jikko woo maanaam dañuy xam ba àggal door a jëfe ñi nekkul ci sunna nag nekk ci biddaa dañu xotti seen yoonu bopp jëf sa jëfi bopp ba àggal door a ñëw nag ci alxuraan wala xadis di lemmi di seet ba xam lii ngay jëfe da nga gis loo ko mën a dëgëraleem déet déedéet loolu du jëfin bokk na ci yi la war mooy da ngaa war a doyloo alxuraan gëm ne mat na gëm ne lépp loo xam ne soxla woo nga ko ci diine mi ngi ci biir moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa ne fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa ku topp sama njub kooku du réer du texee di abdullah ibnu abbas firi mu rafet la ko firi mu ne takaffalu allahu liman qara al quran wa amila bima fihi an la yadilla fi dunya wala yashqa fi l axira yàlla moo jàng alquran jëfe ko ne du réer ci àdduna yi réerale ci àdduna dana ci mujj waaye du texee di itam alaxira naa ko ko am mu doy ku réerul fii ci àdduna mucc nga ci réer ak li muy bari bari bari lu ci ñëw nga mucc ëllëg nga texe ñaar yooyu ku ko am mu doy yàlla na ko yàlla may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne taraktu lan tadillu baadi abadan kitab allahi bàyyi naa leen ñaari yëf yoo xam ne li fee ngi ci jàpp du ngeen réer ba faw mooy lan mu ne alquran ak sunna téere yàlla bi ak sama sunna kon ñaar yooyu wax dëgg yàlla doy nañ lépp looy gëstu ci sa wàllu pas-pas sa wàllu adduna sa doxaliin doxalin lépp looy gëstu lu ne mi ngi ci alquran ak sunna soxlawoo moos di dem di jéggi feneen fu génn ñaar yooyu yow jullit bi juróom-ñetteel bi adamu tafriqi bayna alkitaabi wa sunna léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne dañ lay wax ne man alquran ji rek doy na mu waaye sunna moom xadis yi dafa jafee xam ndax nee nañ da ci am yu wér ak yu wérut ak yooyu yëpp neexut a xàmmee kon koy bu rekk jàpp ci alxuraan ji waaye déedéet loolu dafay juuyoo akuk askanoo ci sunna ndax alxuraan ci boppam mëneesu koo dégg te delluwoo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna yonent bi mooy jëfam mooy waxam mooy lim saxal su fekkoon ni doomu aadama ji dafa ñëw rek ne moom alxuraan rek moom lay jël doy na ko kon kooku julli sax du ko mën a def nooy jullee ku la wax ne julli yi juróom la ndax looloo ngi ci alxuraan nekku ci julli tisbaar gi ngay bëgg a julli ku la wax ne ñeenti rakka la nekkul ci alquran julli takusaan timis benn détail bu aju ci loolu lu dul aqimu salaa taxawal leen julli nuñ koy taxawale loolu mënoo koo xamee ci alquran fi nga mën a dellu mooy sunna mu jàngal la ko bunt yépp boo ko toppee noonu la boo demoon ci asaka xamoo kañ nga génne asaka yan mooy yi ngay génne asaka boo ko génnee kookoo ko jox naam mi ngi ci alquran borom bi tabaraka wa taala nee na génne leen asaka jox leen ko ñii waaye nag ci nan lañ koy defee sunna moo la ko mën a leeral leeralal kon kenn du tàqale diggante alxuraan ak sunna bokk na ci yi mënta ñàkk ci sa dund saw jëfin ci biir diine yow mii askanoo sunna di askanoo almanhaju salafi moo di taqdimu naqli ala al aql bu alxuraan ñëwee sunna ñëw sam xel moom lam lay jariñ mooy jiima xam li alxuraan ak sunna wax waaye alxuraan ak sunna du eh, xelum doomu aadama du indil boroom diine du caagi ne xel mi ngay jël loo natt ba gis ne lii xel mi nangu na ko rek loolu war naa jub déedéet xel mi du noonu xelum doomu aadama melul nenn jenn doomu aadama ci sax day rafetlu tey bu ëllëgee mu ñaawlu fukki doomu aadama bokk nekk fi benn bërëb boo xam ne eh, ñoo bokk fenn fu ñu juddoo ñoo bokk ni ñuy xalaate ñoo bokk lépp benn masala ñëw suñ leen laajoon kii day wax ne nii la kii ne nii la kii ne nii la kii ne nii la ñu jóge kon xel mi xel mi du sukkandikukaay ci li sukkandiku moom mooy liñ toxale ci alquran wala ñu toxale ko ci sunna loolu moo tax ali ibn abi talib radiallahu taala anhu daf doon wax ne su fekkoon ne diine xel la su ñuy masaa aw sànq kon ñi masaa ci suuf moo gën ñi masaa ci kaw ah masaa suuf moo gën ñi ndax boo solee aw sànq mooy dàll dàlloo nga xam ne der lay doon ñu di ko sol mu muur tànk bi yépp xam nga ne boo jàppee ba noppi sol ko sañ ko booy jàppaat da masaa rek ci kaw soo ko solee di dox tànk bi mooy tegee ci suuf suuf gi mooy féete ci suuf kon foofu mooy taq kon su fekkoon ne sa xel ngay jiwoo buñ ne laa masaal sa sang waaye door a julli kon ci suuf ngay faxas door a julli waaye mu ne mbir mi nekk du xel kon ndax lislaam dana ne ci kaw rek ngay laal ndox mi ci nga koy masaa kon du xel yu bare bare bari boo ko jëlee teg ko ci xel ci tëraliinu lislaam da ngay yëg ne borom bi tabaraka wa taala néewala nga topp son xel waaye toppal li ma wàcce la la wax yooyu yu bare bari da koy wone danaa ci di jox mbokk yi misaal ci am ngaanuwaay ki dem ci wana yu saw saw kooku lan moo ko war ci lislaam avant muy julli dana raxas bérébu sawukaay bi ba mu set mu jàpp dal di julli saw ndax am na benn boroom xam-xam ci boroom xam-xam yi lislaam yoo xam ne juuyoo nañ ci ndax sobe la wala du sobe déedéet amul ñépp dëppoo nañ ci ne saw sobe la waaw mani miy génn ci sëy kum génn ci yow lu la war ne ah kooku day du raxas béréb bi mu génne rek waaye yaram yépp lay sang ba mu set mu door a sañ a julli te li ëpp ci borom xam-xami lislaam dañ ne mani yu dafa laab te loolu mooy li gën a wér du sobe mani du sobe dafa laab ndax ma ni ci lañ bind doomu aadama te doomu aadama dafa laab su sobewu woon doomu aadama sobe lay doon waliyasu billah kon lu laab la ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dafa laab wala li ëpp ci ñoom nangu nañ ne dafa laab te euh, addis yépp loolu lay tegtale itam ba noppi comme génne ci yow sa yaram yépp ngay raxas waaw lii nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ne sobe la te comme génne ci yow béréb boobu rek ngay raxas ana xel ah xel nekkut foofu li wér foofu mooy yàlla kay moo naan defal nga def bu ne bàyyi lii nga bàyyi lii kon jullit bi te toppul am xelam waaye diineem la war a topp léegi-léeg na nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw sax même bu dee woote ci lislaam nga dee ah nit ñi day moom alxuraan sax am na ñoo xam ne wareesu koo wax ak ñoom parce que ñoom euh, xel lañ gëm ni ñu xalaate ci wàllu science ak yooyu yeneen lañ leen war a wax waaye suñ leen waxee alxuraan duñ ko mën a dégg waaye loolu njuumte la alxuraanul karim ñépp lay waxal ñépp lay waxal amul kenn koo xam ne mën naa nekk ci benn étape boo xam ne mi ngi koy dund lu dul mën naa wax ak yow ba indi la ci lislaam su fekkee ne baax euh, dikk ci lislaam yeyoo nga ko kon jëmmi xelum doomu aadama ci boppam su muccee sax su muccee sax da dul juyoo ak ak alxuraan ak sunna waaye nag xel yi mucc moom moo dul bari ndax yi koy yi koy gaar bu dootu mucc yooyu dafa bari al imam samaani day wax ne xamal ne ngirum ahlu sunna wal jamaa moo di ann al aqla la yujibu shay'an ala ahad xelum kese mënta ñëw naan la li farata la lii sunna la lii farata la sunna déedéet xel du waral dara wala yarfau shay'an anhu wala xasalahu fi taxlilin wala taxrim xel munta daganal mënta araamal nee na xel mënta rafetlu mënta ñaawlu nee li su fekkoon amut lu jóge ca yàlla wàcc ñu naan def leen lii bàyyi leen lii kon dara du war kenn bu neexoo sey mu def parce que sam xel day topp waaye nag bi dara xasee wàcc lu jóge ci borom bi tabaraka wa taala foofu lañ xamee ne ku def lii am lu baax ku def lii am lu bon lu baax a ngi lu bon a ngi loolu ca kaw la mën a jóge ñu door koo mën a xam waaye xelum doomu aadama mënu koo mënu koo tëral boppam dëgg la nag xel mi di su ko neenal ndax lu am solo la ci doomu adama ji moo ko tàqalee mala mooy tax ñu xam ne kii doomu aadama la xelam mi itam mooy tax mu mën a xam alquran mën a xam sunna bu amul woon xel du ko man xel mi sax mooy tax mu nekk mu kallaf waaye su demoon ba amatul xel dara waratu ko day dem yoram kon xel mi ta ñàkk waaye ñu xam fa mu yem ñu xam fa mu da ngay gis ñoo xam ne seeni xel wutaluñ ko fu mu yem lu nekk dañ ko fa jàllale sax ba ci mbirum yàlla di ci gëstu yoo xam ne xelu doomu aadama waru caa ah? te doomu aadama kàttanam yépp dañoo am fu ñu yem moom ci boppam nangu naa reconnaître ne yim man yépp lu ci ne am na fu mu yem bët bi bu xoolee leer na ko def fii fii la yem jàllut li mu yëkkati ci lu diis xam na lim àttan ak lim àttanu yeneen force yi ci desit noonu la xel mi ci boppam dafa am foo xam ne fa la war a xalaate fa la war a yem am foo xam ne bu fa jàllee bu fa jàllee mi ngi mel ne yow yaa ngi jiima jóg di yanu benn montagne wala loo xam ne loo àttanut la su ko def du sotti bokk na ci yi mënta ñàkk ci yow fukkeel bi moo di taazimu qawli saxaaba wal axdi bihi màggal saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne ñooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu fi doon def moo di jàngal leen ak yar leen ba noppi ci ñoom ba yàlla gërëmal leen boppam laqad radiallahu an almuminina id yubayiunaka taxta shajara yàlla gërëm na ñii toog fii di jaayante yow ci suufu garab gi wax ne wasaabiquna al awalun min almuhajirina wal ansari walladina tabacuhum bi ixsanin radiallahu anhum wa radu anhum ñi jiitu woon ci lislaam muy muhaajiroon yi ak lamsaar yi loolu moo doon saxaaba yi nee na yàlla gërëm na leen ñoom it gërëm nañ yàlla ñii xanaa ñu baax lañ ki yàlla ci boppam wàcc alxuraan ne gërëm naa ñii kon loolu li muy firi moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu doon def ab liggéeyam amee na ko ni mu ko bëggee woon moo di dañ ko fee indi woon muy jàngale di yar jàngal na ñooñu yar na leen ba li yàlla bëggoon ci ñoom mu def ko ci ñoom ba yàlla waxal ko boppam wàcce alquran ne ko ñooñu de gërëm naa leen di wax ne fa in amano bi misli bi amantum bihi faqad ihtadaw su fekkee gëm nañ gëm gu mel ni gii ngeen gëm yéen kon gindiku nañ kon ñi mel nii ñooñu baax nañ yàlla nee na baax nañ kon li yonente bi sallallahu alayhi doon def sotti na kon ñii ñu mat a bàyyi xel lañ ku dem ba yàlla wàcce alxuraanam ne kii gërëm naa ko gërëm na ma kooku ku baax la ku mel ni mu war a mel la kooku waxam ci lislaam woyofut kon ñooñu ku jóg di wax ci ñoom ay kàddu wala nga di leen jàmm wala ngay wax ne baaxuñu ñooñu yow yaa gën a réer kuy réer kuy réer yaa ko gën a réer ndax say wax li muy firi am na ay kuréel yu jóg wala yaasu billah lu mel ni chia yi ak ñu leen nuru dañuy dem ba sax lenn ci saxaaba yu mag yi nga xam ne Abubakar ñuy wax ci ñoom wax yu ñaaw yu suufe àgg sax ci di leen éeféral waliyaasu billah loolu liñ li muy mooy dafa mel ne kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam li mu def baaxut dikk na dundam gépp jeexal na ko fi ne alxuraan ak sunna jàngale bi mu fi jógee ñooñu baaxatuñ yàlla yi wàcce na alxuraan ñii baax nañ ndekete baaxuñ ah defe naa ne loolu loolu lu mel noonu ku xalaate woon noonu da yëg ni li ngay wax rëy na soo jamee kenn ci saxaaba yi li ngay wax rëy na moo tax imaam bu mag abu zurat ar-raasi day wax ne ñii di jóg ci saxaaba yi di wax ci ñoom ñooñu saxaaba yi taxuñu leen a jóg mais lislaam a leen tax a jóg dañoo bëgg a màbb lislaam ndax kat nun lislaam su agsee ci nun su agsee ci nun ci ñii la jaar ñoom ñoonu seedeel ne nu lii mooy lislaam nu gëm ko jël ko yor ko suñ dikkee ne nu ñii baaxuñu nu gëm ko kon lu ñuy dese dara nekkatul parce que lañ wax du kon ñii wax ci saxaaba yi waxuñu ci saxaaba yi mais ci lislaam lañuy wax kon nag loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la lu bari ci nit ñi nag buñ gisee ay kuréel yu nekk ci biir lislaam ba noppi réer lenn ci mbokk yi dañoo jàpp ni ngir jullit yi mën a bennoo bennoo gi mën a wér yu mel noonu kenn waru cee wax dañ ko war a ñu ñugal rek bàyyi noonu jullit yépp doon benn ñu jaamaarloog noon bi nga xam ne moo nekk ci bitti loolu gis gis gisiinu njuumte la néeg bi nga xam ne dafa yor wala jëmm ji nga xam ne dafa yor aw yaram yaram ji tawat nga yëg ni fii ngi metti tànk baa ngi metti loxo baa ngi metti bopp baa ngi metti te dafa war a jóg jaamaarloo ko noonu su fekkee ne wér na ne yow da ngaa a jaamaarloog noonu bi fajul ba wér door a dem fajul ba wér door a jaamaarloog sab noonu kon pas-pas yu yàqu yeeg biddaa yeek njaaxum yi ñuy fas te fekk lu wérut laa ak yooyu yëpp faw nu raxas ko ba mu set wecc wecc ci suñu biir ba mu wér ne noonu ay jullit lan ci seedeb alquran ak sunna su boobaa ci la sunu bennoo di amee ci la ñuy mën a note suñuy noonu waaye su fekkee li fi njaxasa ngi ci suñu biir loo xam ne dañ koy nëpp nëppal noonu naan nañ ko bàyyi noonu rek ndax nit ñi mën a bennoo na wér ne bennoo gi amul bennoo gi amul te suñ demee ba jëmmi lu ne jëmm luy wane ne bennoo jot na bu boobaa ci la ñuy xamee ne bennoo bennoo amut kon méngoo ak saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk la bëgg waa këram muy ahlu baytam ay soxnaam ay doomam ay sëtam loolu lépp lu jaadu ci jullit bi la lu mënta ñàkk la wattandiku biddaa ak lépp loo xam ne lu ko nuru la lu mënta ñàkk la borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne kullu <clears throat> inna alladina farraqu diinahum wa kaanu chiaan lasta minhum fi shay ñi tàqale seen diine def ay kuréel ñooñu day jaaruñu ci saw yoon ñooñu day jaaruñu ci saw yoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxal boppam ne kullu bidaatin dalaala bidaa bu mu mën a doon réer la kon faw faw yooyu yëpp ñu boole ko gëm ko ahlu sunna wal jamaa it bokk na ci seen i pas-pas maanaam gëm gëm ak tasdiq bi karamati al awliya wàlli yuy borom bi tabaraka wa taala muy ñu baax ñi nga xam ne dañoo jaar ci siraatul mustaqim inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxsanun alladina amanu wa kaanu yattaquun ñi dajale iman ak taqwa ñooñu ñoom la ñu tudde wàlli yi ci lislaam ñooñu borom bi tabaraka wa taala dana leen dëgëral ci ay karaama karaama yooyu ba ci gën a rëy mooy njub parce que njub kat lu jafe la jaar ci siraatul mustaqim ci sa lépp sa pas-pas sa jaamu yàlla say jikko leen lu nekk nga di ko xool ci alxuraan ba mu wér nga door ci a jaar loolu muy karaama bi gën a rëy ndax mooy jariñ àdduna ak alaxira waaye teewut nag borom bi tabaraka wa taala dana dimbali dana dimbali wàlli yoom yooyu jamono yoo xam ne dem nañ ba fitna jot wala jamono nañ ba ba jot ñu war leen a dimbali mën na leen indi loo xam ne lu nit ñi miinut la loolu ahlu sunna wal jamaa danañ gëm ne karaama yooyu am na waaye nag gëmin lañ koy gëm woo xam ne du ëpp du yées gëmin wu yées mooy lan mooy taxaw fële weddi lépp loo xam ne xeetu secret la wala xeetu karaama loolu kenn du ko def jaaduwul wu ëpp wi mooy lépp luy jombale lu ne nga ne wàlliyu la nga gis koo xam ne bu génnee defe na ne kuy loxos ak kuy kuy won nit ñi luñ xamut ak ngelaw luy dem ak a ñëw ak lu la jommal lu ne nga ne kooku wàlliwu yàlla déedéet du noonu lenn ci boroom xam-xam yi day wax ne al imaamu Shafii boo gisoon nit ki muy naaw ci jaww ji wala muy dox ci ndox mi nee na bul ne wàlliyu li fee xooloo ko ci alquran ak sunna xoolal ba xam nan lay jëfe foofu su fekkee nattu nga ko foofa mu dikk diis gan diis gan na ci powaab alquran ak sunna xamal ne kooku wàlliyu waaye ma ngay naaw ca kaw ma ngay jaar ci kaw ndox mi te boo ko xoolee moo gën a sori nit ñi lislaam moo gën a sori nit ñi diine ak sell xamal ne kooku du wàlliyu kooku wàlliyu seytaane la waaye du wàlliyu yàlla comme ni mu amee awliya ur rahman dafa am awliya ur seytaan loolu lu mat a bàyyi xel la lii mooy xaaj bu njëkk bi beneen xaaj bi ci topp nag comme ni ma ko waxee woon euh, dafa nekk ay qawaid yoo xam ne pour bayaan manhaj boobu la qawaid nag bu ñu ko wax mooy ay tënk yu gàtt yoo xam ne daf lay résumé lu rëy rëy rëy mu dikk jox la ko joxin wu gàtt moo tax duñ xóotal lool duñ sori itam ci ci ci leeral gi waaye li am solo mooy tudd qawaid yooyu ngir ñu mën cee xam manhaju ahli sunna wal jamaa wala al manhaju salafi mooy lan ci manhaju salafi dañuy wax ne masaadirul aqida al kitab wa sunna kooku mooy xaayida bi ci jëkk pas-pas fan lañ koy jële wala diine sax fan lay jóge ci ñaari mbir rek la mën a jóge alquran ak sunna diw ku baax la jekki na ba mu yàgg farlu na dolli na ci loo xam ne bu buñ ko seetee duñ ko gis ci alquran ak sunna loolu sañoo koo jël na nekk ci alquran wala mu nekk ci sunna door a tudd diine ci munta tudd diine mukk mën naa nekk nag loo xam ne xeli doomu aadama yi mën nañoo dem ba ko jël ko ñoom di ko jëfe waaye bu boobaa du diine du alquran du sunna ginnaaw du alquran du sunna munta nekk diine masadirul aqida alkitab wa sunna nit ñi lu bari ci xeeti réer yuy am wala xeeti ay bidaa yuy sosu tomb bii moo ko indi moo di ñàkk xam fa alxuraan di jóge fan la diine di jóge lii ngay jël yow di ko pratiquer di ko jaamoo yàlla fan la war a jóge jamono yoo ko xàmmeewut jamono yoo ko xàmmeewut yu ne xamal ne muccagoo ci biddaa da nga gis ku baax koo xam ne wóolu nga ko jàpp nga ne wax dëgg yàlla kii moom ak jaamu yàlla am nangam nangam mu jékki-jékki gént dara ne leen def leen nangam ak jaamu yàlla jaamu yàlla googu nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna ngeen xëy def ko amaana ngeen takkoo ko sax ba faaw di ko def te fekk ci gént la jóge jógewul ci alxuraan ak sunna kooku njuumte la alxuraan ak sunna mooy source bi nga xam ne ci la diine di jóge lu dul loolu munta am ndax alxuraan la yàlla wàcce ci yonentam ne ko leeral ko mu leeral ko ba mu àgg mu ne ko diine ji mat na kon demal mu door a faatu ca arafaat ca aj ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon aj jóge ca dundaatu lu bari ca la borom bi tabaraka wa taala wàccee al yawma akmaltu lakum diinakum tey jii laa mottali seen diine ji wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina diine jii nga xam ne mooy diine tey jooju laa nangu mu doon diine waaye lépp loo xam ne noo ngi koy tudde diine ngir rafetlu ko ngir wóolu kanu ko jox di ko jëfe tam wér bu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si woon tey moo ki saxaabaam fekk nu nekk ci biir loola day laaj waaw ñii ci luñ nekk xamal ne loola bokkul ci diine diine yonente bi xam na lépp saxaaba yi xam na lépp lépp luñ ci dolli rek nun noo ko ci dolli ngir suñ bànneexu bakkan wala suñ intérêt bop bopp wala suñu rafet njort waaye fekk na nekkul ci diine ñaareel ba maxtulifa fihi min umuri diini fa maradduhu ila allahi wa rasulih lépp loo xam ne juuyoo nañ ci ci ngir jooyoo googu mën a dañ delloo dellu ci alquran ak sunna moo koy dindi ñetteel ba masailu usul diin wala aqida tawqifiya lépp lu aju ci wàllu pas-pas wala mu aju ci tëraliini diine loolu li ñu tudde tawqifiya la maanaam mënee su boroom xam-xam bi munta farlu ba mën cee dolli dara na ko yàlla ko yonentam bàyyi woon noonu la ko saña a bàyyi ñeenteel ba almarjiu fi fahmi nusuus al aqidati alsaxaaba wa salafu saalix suñ bëggee dégg diine dëgg fa nuy dellu ngir mën koo dégg faw nu jàng taarixu saxaaba yi ndax ñooñu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon yar ñoo fekke woon bi alquran ji wàcc ñoo fekke woon ba yonente bi di wax xadiis yi sallallahu alayhi wa sallam lan moo taxoon mu wax ko kon ñi ñooñu ñoo dégg diine faw nga dellu ci ñoom ngir dégg alquran faw nga dellu ci ñoom ngir dégg sunna kon jàng histoire saxaaba yi mënut a ñàkk seen siira juróomeel bi man nafaqa bi shahadatayni wa azhara al islam fa huwa muslimun ma lam yanqub shahadata képp koo xam ne wax na laa ilaha illa allah muhammad rasulullah seede ñaari seede yooyu kooku jàpp leen ne jullit la li feeg gisu leen mu def loo xam ne lu ju luy firi lislaam la lislaam nag dafa am yu koy firi comme ni nit ki di jàppe ba àggal am njàppam toj nit ki di wax laa ilaha illallah ba àggal laa ilaha illallah ja toj par exemple bokkaale ci misaal bokkaale day toj day toj lislaam comme ni nga xamee ne doon dem ca wanaw dafay toj njàpp su njàpp tojee nag dañuy laabaat moo koy delloosiwaat lislaam it su tojee tuubaat delloosiwaat ci lislaam bàyyi la nga doon def loolu moo koy moo koy delloosi juróom-benneel bi laa yajoosu takfiru ahadin min ahli alqibla bi danbin gayri naaqidin daganul ci benn jullit al i'tisaamu bi aqidati ahli sunnati wal jamaa amrun mutaayin jàpp ci pas-pasu ahli farata la dafa doon loo xam ne ay kuréel dañoo ñu naan ahlu sunna ñii ñii ñii ñii ñii da ngay tànn bu la ci neex déedéet farata la ci képp koo xam ne xas na tuddoo la ak jullit la mu bokk ci ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko waxee mooy ñu topp al manhaj salafi mooy yi nga xam ne seen diine lépp ci alquran ak sunna lañ ko jëlee am na feneen dañ loolu yépp la war ku ko def moo la war ku ko defati moo la war loolu ñu xam juróom-ñetteel bi ahlu ahlul manhaj salafi man kaana ala misli ma kaana alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba ilman wa amalan bu ñu wax ahlu sunna wal jamaa wala ñu naan ahlul manhaj salafi liñ jublu ci ñooñu mooy ña seet la yonente ba nekkoon ak i saxaabaam ñu jël loola nekk ci wàllu xam-xam ak ci wàllu jël أهل المنهج السلفي أبعد الناس عن الشرك والابتداع في الدين juróom-ñeenteel bi moo di ñi nga xam ne ñoo topp manhaju salaf ñoo gën a sori doomu aadama yi bokkaale ak bidaa moo leen kuréel yi am ci àdduna yi topp alxuraan ak sunna ñoo leen gën a sori bidaa ak bokkaale ba tey fukkeel bi al manhaju salafi mabnaahu ala tawassuti wal ictidaal manhaju salaf bu jaarukaayu saxaaba yi ak ñi leen topp li muy firi mooy digg dóomu maanaam Yuusuf ëppul li ñuy wax teengal diine dañ koy waxtandiku bu baax a baax dañ koo sori seen diine moom lu ñam la bu dee ci wàllu pas-pas lu yomb la bu dee ci wàllu jaamu yàlla lu simple la lu yomb la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalu kenn lenn loo xam ne da koy fitnaal moo tax diine diine wasat wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan dañ leen a def ngeen nekk xeet woo xam ne di ci dóomu la léeg-léeg nag li indi teengal teengal xam ne dafa ëpp mooy ñàkk xam dafa faral di indi yées yées ba àggoo itam fi nga xam ne fi lañ bëggoon nga àgg fa li koy faral di indi mooy ñaat xam-xam wala ñàkk yaru ci yar bi nga xam ne mooy di jaar kon faaw xam ak yaru ñaar yooyu mënu la ñàkk ci fukkeel ba ak benn moo di al manhaj salafi mabnaahu ala tasabuti fi riwaaya wa taxaquq min adalaala ñi topp manhaj salaf maanaam jëmmi manhaj salaf ci boppam ci lan la tegu moo di faw li ñu tudde riwaaya muy xadiis bala ñu koo jëfe danañ gëstu ba xam fan la wéram toll ndax kat jëfe xadiis bu wérut bari na lu dolli ko ci diine te looloo ko ci jóge xadis bu wéru boo xam ne dañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te fekk waxu ko bari na lu dolli ko ci diine te fekk moom ko dolli ñaareel ba gannaaw buñ gëstoo ba xam ne lii wér ne yonente bee ko wax ñu gëstu ba xam lii ni wax mooy lan dëgg dëgg loolu nag waxoon naa leen dellu ci saxaaba yi moom moo la ci dindi alwalaau fi lmanhaj salafi lilxaqi waxdahu ñi nga xam ne dañoo topp manhaju salaf saaleh seen féete seen féete mooy dëgg seen féete mooy dëgg su ñaar doon werante kenn ki la bokkal kuréel kenn ki la bokkal mbooloo kenn ki la bokkal ndey ak baay sax waaye bi ñu waxee ñoom ñaar xam na ne dëgg ànd sax ci moom kële la àndal ñooñu ñoom dëgg rek lañu àndal waaye ànd ñoo keneen kon melokaan woow war ngaa jéem ma yar sa bopp war ngaa jéem a góorgóorlu insha allah ba def ko sa bopp moo di lépp loo xam ne dëppoowul ak diine Euh, dëppoowul ak dëgg loolu bu la ci kenn ci almanhaju salafi laa yumtaxanu naasu bi ma laysa fi lkitaabi wa sunna ñi topp manhaju salaf topp yonente bi salallahu alayhi waalihi wa sallam ak ci saxaabaam ci seet nit ci baax na ak baaxul amul yeneen peesewukaay yuñ yor yu bokkul ak alquran ak sunna amuñu yeneen peesewukaay da nga baree bari pour nit ki baax yeneen lañ koy teetee jullit bi mën nay ànd ak yow di jullit ci jàkk ji di dugg ak génn nga jàppe ko rek ne benn waay li fekk gëstu ba xam ne moom yéen a benn kuréel bu ngeen bokk nga doon ah yow kat saa waay ndegete mbokk la yéen doon nattukaay yi ñu am pour ne nit baax na ak baaxul mooy alquran ak sunna léegi la nga gis koo xam ne bu nit ki baaxee ci moom di ko defal lu baax bu jël di ko jox mu ne diw moo fi gën seetaatut leneen nattukaay bi mu moom mooy da koy jox waaye def na loolu du nattukaay joxe dëgg la baax na waaye nag def na yeneen def na yeneen kon nattukaay bi mooy nit ki ak tënkoom ci alquran ak sunna ci almanhaju salafi ba tey laa maasuma illa rasulullah sallallahu alayhi kenn doomu moo nekk maasum suñ musal ci njuumte suñ musal ci njuumte musal ko ci ndëngte du juum lu mu def lu nekk noona la kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul moom ku mën a doon ak loo baax baax ak loo kawe kawe sa borom bi tabaraka wa taala yàlla joxula dara yooyu di la wax yi nga xam ne soo juumee dalay lay wax ne déedéet du noonu dafa tëj foofu yonent bi moo am loolu loolu moo tax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne mu ngoog doy leen ko lu def def leen parce que lu mu def lu ne noona la waaye keneen koo mën a jël ku nekk teg ko ci place boobu boo xoolee rek da nga gis ne du yonent bi boo xoolee rek i ne wuute boo xoolee da nga ko gis ci jëfub duñ la nekk la istuwaaram bu dee koo gisul da nga gis yoo xam ne dañuy ñëw dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ki nekk ku mucc ku mucc kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mucc nag mooy tax nit ki nekk royukaay royukaay boo xam ne dañ lay wax lu mu def defal lu mu bàyyi bàyyi li fekk néewuñ la yamal foofu rek bunt foofu dañ ubbi ijmaau as-salaf as-saalih xujjatun sharciyyatun mulzimatun liman ba'dahum salafu saalix muy saxaaba yeeg taabi'un yi ak ñañ yar suñu dëppoo masala moo xam ne seetlu nga ko ci lislaam yow ndonga li jàng bàyyi loolu xel seetlu nga ko ci lislaam gis nga ne saxaaba yi juyoowuñ xamal ne ko ñu war la bu dee la ñuy fas ko war na bu dee la ñuy jëfe jëfe ko war na bu dee la ñuy bàyyi itam bàyyi ko war na ndax diine la diine loo xam ne saxaaba yi dëppoo na ci moo xadis bu taxaw wala aaya bu taxaw ñoo yam ndax ñoom duñ dëppoo ci luñ dëppoowul ak alquran ak sunna loolu moo tax bàyyi xel ahlul manhaj salafi laa yaxkumuuna ala man xaalafahum illa bil ilmi wal adl ñi topp manhaj salaf duñu atte nit ki atte boo xam ne dëppoowul ak xam-xam dëppoowul ak maandu li ñuy wax ci nit ki lu mu mën a doon seede dëgg lay doon nadratu ahli almanhaj alsalafi ila almubtadia taxtalifu an nadratihim ila man ulima kufru ahlu sunna waljamaa bu ñu topp manhaj salaf duñ jël ñun juróol ñëpp jox leen benn àtte am na ñoo xam ne ci biddaa lañ nekk am ñoo xam ne nekkuñ ci biddaa ci beneen yi mooy yàlla lañ nekk am ñoo xam ne ci kéefër lañ nekk ñooñu beneen àtte lañ yor bokkuñu ak ñu nekk ci kéefër kon yooyu lu ma ta xàmmee la ba tey al indiwaau taxta liwaa il mubtadia muxaalifun li manhaji salaf ki nga xam ne xam na nekk manhaji ahlu sunna wal jamaa amatul amatul droit amatul sañ-sañ jullit bi sax la ñuy wax amatul sañ-sañ ci biir bi làqut biir bidaa wala muy ànd ak waa bidaa bi nekk ko ko war a leer naaj ba tey ak difaaw an ilbidaai wa ahliha muxaalifun li manhaj salaf défendre bidaa défendre nit kuy dund ci biir bidaa loolu du manhaj loolu ñu xam bokk na ci yooyu lamzu ahli sunnati wal jamaa aw bughduhum aw tanqiiqu minhum maasiyatun qad tasilu ila al kufr waliyaadu billah xas xas ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci alquran ak sunna di leen wax wax ju ju leen di manqué wala nga di leen suufeel wala ngay wax ci ñoom wax yoo xam ne pour génne leen ci liñ nekk la loolu musiba la mooy yàlla la goo xam ne amaana mën naa yóbbee nit ki sax ba yóbbu ko ci kéefar te du ko yëg loolu lu tax nit ki léeg-léeg mu mere nit ki di ko tere loo xam ne di ko tere loo xam ne moom dafa yëgul ne lii dafa lu baax dafa defoon ne li mu tere lu bon la loolu la jublu woon waaye nekk li muy tere lu baax la kooku mën nañu jàpp ne dafa juum mbiram mën naa wayal waaye léeg-léeg da gis koo xam ne dangay ñëw ne ko mbokkum jullit bi sa doom ji di ji ma góorgóorlu di muuru doom bi jigéen bi di ji ma góorgóorlu di muuru nga di ko sonal di ko dóor di xotti buuraayam bi xanaa xamoo ne lii gën a yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne loolu foo ma soxla maa ko jur li ma wax lay def lu mel nii kii mooy boo xam ne ku taxaw na di xeex sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ati kooku mën naa yóbbu nit ci kéefar ci dëkk bi mën ko yóbbu kéefar ñi borom bi tabaraka wa taala wàcce woon aaya bi bi ñuy dem ci xaswatu Tabuuk kooku borom bi tabaraka wa taala wax laa ta'tazilu al-yawma faqad kafartum ba'da imaanikum ay nit yoo xam ne aaya dafa wàcc ne ñi ay yéefar lañ ñu ñëw di jégalu di tuub yàlla wàcce alxuraan ne du nangu tuub ñooñu lan lañ waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd naag saxaaba yi ñu génn ñu génn di dem Tabuk di jihaati fi sabilillah am gaa yu nekk ci biir di waxtaan di makk-makk di ree naan ah suñ gaa yi de waaye di dañuy gaa yi mën a jàng alquran xaaral tey bañ àgg bañ jaamaarloo yéefar yi nga xam ne ñooy rome yi tey danañ gis ñu leen ëpp doole dàq leen a xeex yàlla ne leen weddi ngeen génn ngeen bi ñu daw di ñëw di tuub mu ne laa taxtadiru bu leen jéggalu faqad kafartum ba'da imaanikum gëmoon ngeen waaye weddi ngeen génn ngeen lislaam ah nit ñi nit ñi jamono yu nekk yaa ngi dégg ñu wax ne yées loolu ci diin ah nit romb la koo xam ne ñu góorgóorlu nekk ci sunna jàpp ci biir nga wax ci moom wax ñaaw joo xam ne yow li ngay wax boo ko seetloo sunna ngay wax nga wax ko waaji ah waaji moom waaji rek la waaye li tax nga di ko xas ginnaaw boo ko firee li muy firi mooy loolu lislaam a ko santaane yow léegi yaa ngi dal ci kaw lislaam ko yóbboo léeg-léeg nag day yëpp loolu ci fàtt kon ay jiir la yoo xam ne yu mata wattandiku la ahlul manhaji salafi yufarriquuna fi lmuamala bayna almustafidi bi bidaatihi wa bayna almubhiri laha wa daai ilayha ñi topp manhaju ahli sunna wal jamaa muy manhaju salaf comme ni ma la ko waxoon léegi yemalewul nit yépp ci jëflante léeg-léeg nga gis koo xam ne mi ngi ci biddaa sax waaye waaye biddaa bi li ko ci yóbbu mooy bi li ko ci yóbbu ñàkk pexe loolu la lay tontu boo ko laajee jotaa bi mi ngi ci waaye léeg-léeg sax dafay nëbb bëgg mu feeñ ku mel nii wax dëgg yàlla nañu jëflante ak moom bokkut ak koo xam ne dafa taxaw ne sëng di woote ci bidaa ah di delloo sunna wér ñëpp di dégg ñooñu bokkuñu su ko defee lu mel noonu itam lu ma ta xam ne la bu leen leen jox benn atte bi ahlul manhaj salafi yad'una li ahli lbidaai bilhidayati warrahma maa lam yu'lam kufr ñi topp manhaju ahli sunna waljamaa dañuy ñaanal ñi nga xam ne dañoo nekkul ci ngir moom dañoo toppul alxuraan ak sunna ngir lu leen ko teg lu mu mën a doon moo xam waaye dañ leen di ñaanal yàlla bind leen di leen di ñaanal itam yërmaane moo tax borom xam-xam bu mag Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya dafa doon wax ne ahlu sunna arafu naasi bil xaq wa arxamuhum lil xalq ñoom ñoo gën a xam nit ñi dëgg waaye ñoo ëpp yërmaande itam ci nit ñi kon ki xam dëgg borom bi tabaraka wa taala baaxee ko mu jaar mu jaar ci bu mu jàpp ne mukk ak njàmbaaram la bu mu jàpp mukk ne moom ñii dafa góorgóorlu dafa sàkku xam-xam dafa def nii dafa jaar ci loolu moo tax mu mel nii déedéet borom bi tabaraka wa taala moo la baaxee boo xoolee sa bopp xool sa dund da nga gis xam ne bu nekkoon borom bi tabaraka wa taala mu bañ a nekk kon beneen jullit boo xam ne ñu ngi nekk ci nattu am yum defe yoo xam ne moo xam ñu ngi ci tos tos la moo xam ay bidaa la moo xam ñàkk xam la moo xam lu mu doon kooku li war a dox sa diggante ak moom mooy yërmande yërmande gis nga lu baax ci moom nga woon kon ci mu di moo gën lii mooy li baax lii mooy li baax lii la ñu war a jëfe lii war ñu koo defe lii la ko yàlla bëggee lii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggee ci melokaanu mu mel noonu noonu la ñuy dunde ak ñoom ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax ne moom ci boppam digganteem ak xeet yi ni mu mel mooy nit koo xam ne dafa toog ci ab làmb ab taal am ay lëppalëpp yoo xam ne dañuy naaw di dal ci taal bi bëgg a dugg ci taal bi mu di leen kël mu leen wax di leen na noonu la mel ak nit ñi cest leen di woo di leen ci dugal yërmaande la am ci ñoom dafa gis ñu màbb di góor di jëm koo xam ne bu ñu ko bàyyiwul sawara la leen di yóbbu mu di leen fekk di leen wax di leen jaar ci yoon ci yoonu sawara jaar leen fii fii mooy yoonu ajjana ki nga xam ne dafa ñëw gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di woote loolu rek moo ko wax yërmaande ci nit di leen woo di leen wan li nga xam ne moo baax di leen woo di leen wan li nga xam ne moo baaxul ndax ñu mën ko bàyyi ñàkk tënku nag ci mën naju ak salafu saalih dafay am ay mbir yu bari yoo xam ne daf koy indi nit yooyu bokk na ci ñàkk ittiwu tawxid tawxid ku ko ittiwoowu yaa ngi ci nit ki dafa war a wéetal borom warta am mukk ay yàlla yàlla moom dong mooy yàlla lim yeyoo moom dong moo ko yeyoo lim man moom dong moo man lim xam moom dong moo ko xam pas-pas bi mu wér suñu diggante ak suñu borom ñaareel bi ñàkk jaar ci yoon woowu day tax nit ki nit ki jëm war a jox xam-xam du ko ko jox xam-xamu sharia des ko war a jox waxtu jàng ko su fekkee ndaw nga su fekkee mag nga ak mën a toll amul benn as bu ñu toll boo xam ne dañuy wax ne jàng weer yi dañ doon dugg ci lislaam fekk ñu ngi am ay juróom-ñaar fukki ñenn ñi am lu ëpp loolu ah buñ dikkee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuub jàng ci ci li ñuy wax ci tarjama Salman al Farisi nga xam ne dañ lay wax ne kooku ñu gudde woon fan daanaka ci ci histoire xanaa ca nitu noox lañ gëj a gis ñu gudde noonu fan Salman al dañ lay wax ci tarjamaam ne dund na ñetti téeméeri at dund na ci diine yi jiitu woon yenn ji ci nekk dund na ca ba doonte njiit waaye teewul mu ngi doon gëstu di seet ci melokaani téere yëpp gisoon muy téere yahuud yi melokaanu yonent bi mujj wàcc ci loolu la doon wëre di wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba gis ko bi mu ko gisee ndax boobu moom xamul ku yonent bi waaye gis na ci seen téere yëg na kooku dana gàddaay bu gàddaayee dana ñëw ci dëkk boo xam ne nii lay mel nii lay mel nii lay mel wax jarab ya fa nekk ak montagne yaag yëpp mu ñëw ci dëkk boobu ñu laaj leen ndax amul ku fi gàddaay ñu ne ko am na day su jógee mbokk ci waa Xurayj su jógee Màkka gàddaay ñëw fii mu ñëw wër dëkk bi xool bi mu daa daan gis yonent bi dafa xool dëkk bi montagne yi yor ay téeréem di xool ba gis ne dëkk bi dëppoon ak dëkk bi ñu seet mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen kii la mu ne ñu ne ko waaw bi mu dikkee ni mu def dafa daal di yëkkati mbubb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool ba gis tampon bi ñu waxoon ne kay nekk yonent boobu am na lu ñu tudde xatmu nubuwa ak tampon boo xam ne ci gannaaw ga lay nekk mu ñëw xool daal di ko ciy gis bi ko ci gisee mu ñëw laaj leen lu ngeen di ci lislaam mu wax ko ko fekk ne loolu lépp xamoon na ko mu daal di ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna na ñaari téeméeri at ak nangam moom Salmaan al Faarisi ci jamono yooyu lan la daal di njëkk itteewu jàng foofu li ma la bëgg wax moo di amul at yoo xam ne da wax ne su ma ko amee mënatuma jàng loolu du lay ñaari téeméeri at ak nangam mu door dugg ci lislaam door a tàmbali di jàng am na ci saxaaba yi ñoo xam ne ku mel ne <coughs> Xaftaan ibnu Saabit juróom-benn fukki at dund na ko ci ak réer jaahilee dañ ko wax dundaat juróom-benn fukki at ci lislaam euh, ab lim lañ am na benn borom xam-xam mag bu bind téere boo xam ne daf ko bind ñi nga xam ne dañoo dund téeméeri at ak ñaar fukki ci saxaaba yi juróom-benn fukki yi ci gréer juróom-benn fukki yi ci lislaam te ànd ak at yooyu yëpp buñ duggee ci lislaam bi ñuy jëkk istewa mooy jàng seen diine da nga daan gis ci jóge fële tuub ci ñaar fukki fan kepp daal di doon borom xam-xam dellu bu demee dugal aw nitam ci lislaam nekk seen jiit leen xamal lislaam kon mbir mi doonut loo xam ne lu jafe loolu la ñi koy jàngale it ñu yombal ko nag ci ci kanam nit ñi hmm? ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kat yorul woon yoo xam ne dañuy toog ci kanam di digte mën naan leen di leen jàngal par benn baat daf leen di wax ñu xam daf leen di wax rek ñu xam mu leer naa ñu ci seen bopp ñu xam ne yàlla dong mooy yàlla moom mi mooy yonente moom la ñu war a jëf alquran ak sunna mooy diini ñu daal di jàng alquran ak sunna dem seen yoon dundi seen diin lu yomb la insha allah ba tey itam ñàkk soobu mën xëy boobu yu addi ila tasahul fi amri bidaa wa ahliha mbirum bidaa woyofal ko baaxul kenn war ko woyofal lépp lu bokkul ci diine waru cee bokk waree ko ci diine wutal xalaat ba tey itam ñàkk a topp mbirum salafu saalax seenu yoon dafay indi ak sàqali ko jaar ci yoon woowu nga xam ne mooy yoonu alxuraan ak sunna mooy boole nit ñi moo leen di jox doole ñàkk leen a topp itam ñàkk jaar ci alxuraan ak sunna dafay yóbbe nit ñi xeetu fanatisme boo xam ne li muy mujj indi mooy day mel ne lislaam ay parti la te pat kenn ku nekk sa parti bopp boo xam ne da ngaa ne bii mooy lislaam dee du lislaam dañoo war a dëkk ci alxuraan ak sunna yi nga xam ne moo ko waate lépp ba tey itam ila idaati al awqat fi daawati ila umurin juz'iyya ñàkk a topp mën a gis salaf day tax nit ki même daawa buy woote ci lislaam du xam fu muy tàmbale du xam tàmbale fi ñu tàmbale mooy la gën a rëy fexe ba ñu wéetal borom bi tabaraka wa taala su nit ki yàlla ba mu xam ne yàlla doomu mooy yàlla ñu xamal ko ne ko kii mooy bi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xamal ko ne ko diine ci alquran ak sunna képp lay jóge tàmbale nag di ko jàngal yeneen masala yu sew yi ndax kat tawxiid bi moom ñu wéetal yàlla ji mooy loo xam ne bu ko jàngoon ba képp noppi faatu ci loolu képp alhamdulilah mën nañoo rafet moom jox te mun kenn kuy yóbbu tawxiid yóbbaale tawxiid ñu wéetal yàlla mucc ci bokkaale yóbbaale ko ëllëg muy tax ci tawam loolu amul yaxruju min annaari man kaana fi qalbihi misqaala xubbatin min xardalin min iman ku yóbbaale dara ci ngëm yàlla ci tawxiid ëllëg du tax mu fi sawar bu defoon bàkkaari àdduna ak li ci biiram ba tax ñu dugal ko sawara yi bés li ñëw borom bi tabaraka wa taala dana ko génne dugal ko àjjana ngir tawxiid boobu ñu yóbbaale kon kooku mooy li ma ta yóbbaale léeg-léeg nga gis ñoo xam ne bu ñu woote bu ñu ñëwee ci yeneen la ñu tàmbalee waxtaan ci jikko yeeg dafal ba rafetal koy jikko si diggante boo takkee lam ñu ne la tekki lam bi lii dañ koy tere boo dee tox ñu ne la ah tox kat moom baaxul te fekk xooluñu sa pas-pas yeeg sa bidaa yi ci def bu pas-pas bu wéree nangu na ne alxuraan nag sunna wér du ngeen du ngeen xëccoo ci yeneen yi ci def du ngeen ci xëccoo ndax xam ne léegi ne ndigal ak tere borom bi tabaraka wa taala lay jóge waaye soo dikkee tàmmaleeg moom ci suuf te moom nangoogul ne alxuraan ak sunna mooy àtte lay da nga koy jox da ko dul doy ah soo ñëwee ne ko tax baaxut mu ne lu tax baaxut parce que man bëgg naa ko te sama alal la fekk moom dafa ma ko neen kooku boo ne ko woon yàllaa ko tere comme yonente ne danaan loolu daal moom yàlla am na yërmaane fekk na ay jaaroo moom fa nga war a jaaral moom moo tax mbir mi mbir mi day tàmbalee ci maxam yu mag moo tax euh, walakin kunu rabbaniyin boo demee ci ni ko boroom xam-xam yi di firee borom bi tabaraka wa taala daf leen ngeen nekk ay rabbaaniyuun rabbaaniyuun mooy lan borom xam-xam ne dañuy wax ne man yu rabbi ala kibaari almasaili qabla digaariha mooy koo xam ne buy yar nit ñi di leen jàngal day tàmbalee ca masale yu mag yi door a ñëw ci masale yu soxla yu nekk waaye boo dikkee tàmbalee ci suuf luy joo xuloo garante yooyu rek su la lu bari sa dund di jeex te fekk ñi ngay jàngal di leen yar euh, la nga bëgg ci ñoom day jëf ñàkk jàpp ci manhaj boobu itam yu addi ilal xuluw fi diin jàdd jàdd manhaj boobu day tax nit ci xengal diineem comme ni ma la ko waxoon ci gannaaw day tax ëppal ñàkk ci jàpp ba tey yu addi ilal baxyi wali atidaadi ala wali atidaai ala ahli lxaq ñàkk jàpp ci mbir moomu day tee maandu ñàkk topp yonent bi ak ci saxaabaam day tee nit ci maandu léeg-léeg nga gis nit koo xam ne ñamuy wax ci ñoom di leen xas di wax ñoom wax bu ñaaw wala muy jëf ñoom jëf bu ñaaw suñ ko laajee loo jotee ñoom mun laa wax lenn lu dul euh, dañoo gëmut li ma nekk loolu kon ñàkk jaar ci ngir moomu ba tey day tax nit ki du teeylu yéefarloo nit yéefarloo nit nit ahlu sunna wal jamaa gën a teey lañ bokk bala ñoo àtte ki ne yéefar la fu ne danañ ko jaaral ñoom ñu bari ñi leen xamul nag dañoo yaakaar ñoom dañoo taxawale ko koroo rek seen i loxo kuy génn ah kenn yéefar la kenn yéefar la kenn yéefar la ñoom ñoo a sori nit ñi ndax dañoo gëm ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku ne nit la benn mu doon yéefar wala yow nga doon yéefar ñoom duñ ko gaaw wax nit ah, dañoo yor xaayida boo xam ne day wax ne nga juum nga juum ci nit ki nga defe ni jullit la fekk yéefar la moo gën nga juum ci nit ki nga def ko yéefar fekk jullit la maanaam nga ñëw gis ak yéefar waaye mi ngi jëfe-jëf yoo xam ne na jëfe jullit nga ne ah kii di jullit la jëf leen teg moom jëf leen ci jullit fekk yéefar la loolu njuumte moo gën a woyof nga ñëw fekk koo xam ne jullit la yow nga ne yéefar la kooku njuumte bu rëy la koo xam ne kooku kanam borom koo koy laajee moo tax Usaama ibn Zayd bi mu ñëwee ca yéefar ba yor jaas ja di ko bëgg a rey waaja daal di wax laa mu daal di koy cor jaas ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nett li ko ah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko aqataltahu baada ma qaala laa ilaha illa allah rey nga ko te wax na laa ilaha illa allah mu ne ko waaw waaw daf koo wax rek pour pour mucc mucc ci jaasi mu ne ko maada tafalu bi laa ilaha illa allah yowm alqiyaama bu yowm alqiyaama nooy def laa ilaha illa allah jooju mu wax Usaama def ne bis boobu li ma doon ñaan li ma doon ñaan mooy fekk duggaguma woon ci lislaam ndax ma dugg ci lislaam tàmbaliwaat maanaam li ma doon ñaan yàlla kero mooy na sama lépp far amatuma yool amatuma bàkkaar ndax ma mën a tàmbali jëf nit ñi am lu la ma ko teey ba tey itam ah, boobu ñu ci jaar ah, ñu juróom ñoom benn ah, da ngay gis ne dafa def effort am ma góorgóorlu yàlla dogal ma juum kooku déggal nañu ko jéem a góorgóorlu jéem a xam dëgg pexe bu nekk def na ko jéem a góorgóorlu xam ne amut lenn loo xam ne ci bànneexu bakkan wala fanatisme wala lenn moo ko gàllankoor waaye jéem naa xam dëgg mënu ko xam lam jàpp ne mooy dëgg def na effort am waaye foofa la mën a yem borom bi tabaraka wa taala du yenn kenn lu mu attan du yenn kenn loo xam ne lu mu attan la yukallifu llahu nafsan illa wusaha moo tax ci suñ liggéey yi ci biir diine liy waral liy waral léeg-léeg dem ba jëmmi jamono ñu defee ne ndaw ñi di ñëw di góorgóorlu ci sunna dañoo contre mag ñi wala dañoo jàpp ne mag ñi yëpp nga woon ci diine mag ñi mag ñi seen lu tax béréb bi dund ci wàllu gëstu boo dajalee téere yi ci nekkoon yëpp ci lislaam xool mag ñi liñ doon dund ci seen wàllu histoire lan nga fa jële ban résultat la lay jox moo di ñii de liñ gisoon ci xam-xam jàng nañ ko dégg nañ ko loolu nañ ko jëf loolu nañ ko jëf rafet njortit nag ci ni sellaloon yii su dajee nit ko jaanam waaye waaye doon nañ dund ci jamono yoo xam ne ñoom di jamono yu jafe la moo xam ne nangu nan ko wala nangu wun moo di jëmmi téere ak ci fii colonial bi lu mën doon na ko def ngir téere lislaam bañ a ak ñi réew mi ak réew yi nga xam ne colonité lañ leen ba léegi boo demee ci archives national da nga ay lettres yoo xam ne pour contourner ay téere xoolal téere sàngam yow mi nekk frontière bi diw sàngam diw duudu tekk diw sàngam xoolal téere sàngam ba xam war naa mën a dugg ci wala warta mën a dugg yu mel noonu la ñuy wax téere bu ñu autorisé bul dugg bu ñu autorisé bul ñu téye ko dajale ba mu neex leen ñu sànni ci tax yi wala ñu def lu leen neex kon téere ya doon jógee fenku di jàngale yenn njàngale yi ci alquran ak sunna téere yooyu yi ci bare bare bare bari tubaab yi dañ ko doon téere ak kon kooku gàllankoor la boo xam ne su nañ ba jëmmi jamono àdduna ubbi lépp xëttaloon na sax nekk lenn lu nekk mën na faa àgg yow ndaw li ñëw ci gannaaw ma ñëw rek xool ne man gis naa ne sama baay kat man jàngoon na aw njàngam fii la yemoon jëfinam itam ci sunna doon na ji ma góor loolu itam kàttanam fii la yemoon ma ñëw ne man ah lu ma mën a jàng mu doon addunaal bi ci biiram doonte gis naa addis yi bu yoo tax ak lii sama bàyyi nekkoon ma it damay wax rek ne ah man kat lii sama bàyyi nekkoon mu wér doonte wute naag wax yonente bi sallallahu alayhi wa ak réer la laa chaque ne ak réer la yow bu sa bàyyi musie yi yow da am da nga am yaraange bu ëllëg yi bu ëllëg yi danañ la laaj ndax yow ci sa bàyyi lañ woon wa sallam lañ yónni te bu boobaa da nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñëwoon ci yow waaye yéen ñoo ñëwoon ci yow kon ñële bu fekkee seen jaan wàcc na yow pour sa jaan wàcc boo dikkee taxawal ci kaw li ñu doon def ñoom jàng ko ba xam ko waaye bul tax say bët jàngal gëstul xam-xam jàngal xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal alquran nam gën a yaatoo ngir nga mën a gis gis bi nga xam ne lépp Euh, li tolloog sa jamono danga ko mën a jël bu ëllëgee ñeneen ñëw sa gannaaw ñoom itam gën a góorgóor lu yëf yi gën a xëttaloo ñu raw la ñoom itam war ñoo yem fa nga yemoon te loolu kat buñ teetee dana ci gis wàllu adduna bi noonu la ñuy jëfe ci wàllu diine ji rek lañ ko nanguwu waaye wàllu adduna bi boo xoolee baay ak maam lañ nekkoon ñun nangu nañ koo weer bu dee néeg néegum ñax lañ yoroon dëkk dend ak tool bi bay di ñëw nekk si néegum ñax foo jëm bu nekk war koo fot ànd ak sa dongo bu topp sëb la sant boo amee loolu yow yaay borom barke boobu ñu toog ñu ëpp ci nit amuñu loolu nga dem ba jëmmi jamono jamono di dox ci wàllu àdduna ba lu bari ci nit ñi léegi néegum ñax buñ ci tëddee dafa ne kooku amatul barke léegi dangaa war a tabax dama koy ngir ñu gëne ci dangaa a yokk oto di daw di ma ko ñëw ah nga nangu ne àdduna daal moom kon nangu naa avancé ndax fa maam ñoom toll woon yëf yi foofu la toll woon yëf yi gën naa yaatu léegi nan topp ci lu dund yi loolu nangu nañ ko defe naa wala ba tey am na ñuy aji di di wari fas ak a dugg ci dafa naa amatul léegi waaw kon léegi nangu nañ loolu waaw lu tax mbirum diine mi itam nag loolu duñ ko nangu ñaari toujours indi werante nit ñi ngay waxal dañ la dul comprendre dañuy defe ni kii kat ginnaaw mi di wax loo xam ne wala muy jëfe loo xam ne bokk li mag ñi doon jëfe kooku daal kontal mag ñi déedéet dañoo jëkk tabax fa nga xam ne fa la mag ñi yemoon insha allah di jiima góorgóorlu di ca dolli te noonu ñu jàpp ne ñoom ci seen dundi bopp su doon ñoo del ci tey jàkkaarloo seen doom ya seen sët yi di góorgóorlu ci xam-xam ak jëfe duñ leen yàgg mukk ci loolu loolu moom suñu rafet ñoom moom àgg na foofu moo tax yu mel noonu toujours ñu ma ta bàyyi xel la wallahu alam defe naa ne jël nañ lu bari ci waxtu euh, maa xamul waxtaan yi dañ jeex danaa julli ci baaxale wala dañuy toogaat tuuti gannaaw Euh, ala kulli xaal waxtaan bi jeex na foofu asalullah li wa lakum suluutan min salafi saalih wa sabat alayhi ala xatta almamat wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain euh, ñu ngi jéggalu ci xaw de euh, guddal tuuti ak ci yenn détails yi lépp lu ci xam ne lu ci nekk njub njub la loolu mu ngi jóge ci alquran ak sunna jóge ci yàllaa ko yonentam lu ci nekk ci xeetu njuumte ci moom la jógee wala mu jóge ci seytaane noonu ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu jéggal na ko ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu def jotaay bi jotaay yi wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain salaamaaleykum ñu sant yàlla ci may gim ñu may ñu toog teewlu jotaay bi Eh, xewlu ko yëpp incha allah di gën a sant mbokk mi nga xam ne moo doon def waxtaan bi ci Cheikh Mouhamad Ahmad Lo eh, ko sant bu baax ci mottali bi nga xam ne moom la mottalee jotaay di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ko te nangul ñu ñun ñëpp incha allah te itam di ko ñaanal yàlla mu dëgg gën ko defal ab jàppandal eh, ngir fii nga xam ne foofu la fekkee jullit ñi ci di leen leeral seen wàllu diine yàlla yàlla def gën ko defal ab jàppandal te loolu mu gën ci mun a gën a taxaw allah